classe boobu boobu mhm. classe boobu am na ñetti niveau muy classe su mhm. euh, débutant yi intermédiaire yi ak ñi nga xam ni moom mooy ñiy jàppale sëriñ bi mooy ñi nga xam ni yàgg nañ ci daara ji am na classe mhm. boo xam ne aussi dimanche la boobu aussi euh, treize heures la ba quinze heures heure New York euh, boobu moom tamit classe la boo xam ne c'est pour trois kii yëpp niveau yëpp muy débutant yi intermédiaire yi ak Euh, niveau avancé bi donc classe yooyu noonu yëpp sëriñ bi moom daf fay nekk moom ci jëmi boppam di jàngale donc moom mooy jàngale ak ñi xam ne ñoo koy jàppale donc bu ñu jógee ci programme mu jàng nañu programme mu mercredi nga xam ni moom mooy programme bi nga xam ni ci la ñuy waxtaanee lépp li nga xam ni moom la ñuy tëral ak di ko di ko di ko di ko di ko def comme stratégie ci xam ni mooy fa Eh, daanaka bu ñu amee ay programme ak bu ñu amee ay xew-xew ak yëpp daanaka ci yooyu lañ koy waxtaanee ak yi nga xam ni daal lépp loo xam ni dinañ ko def ngir liggéey bi gën a jëm kanam ci eh, programme boobu lañ koy waxtaanee muy nekk mercredi bi eh, tous les mm-hmm. mercredis am nañu beneen programme boo xam ni moom jeudi lay doon mooy bi nga xam ni moom wàllum. Euh, mun naa mun naa wax ni diine ak jamono lay doon mhm. parce que dañuy waxtaane wàllum société dañuy waxtaane wàllum santé dañuy waxtaane lépp loo xam ne rek euh, dina dimbali doomu aadama dina dimbali nekkinu euh, jullit yi nga xam ne nekk nañu fii ci dëkk bi donc dañ ciy am invité yi nga xam ne mun nañu doon ay médecin mun nañu doon lépp loo xam ne mhm. fànn yi nga xam ne yëpp daal dina laal dundu doomu aadama bi mhm. bu ñu jugee ci loolu aussi ñu am programme vendredi bi mooy comme bii nii tey nga xam ni mooy suñu mhm. programme xadaratul jumaa euh, ci la ñuy am oustaz euh, yu ñu invité comme nii rek tey ni ñu la invité we ñu jël benn thème waxtaan ci ko defee ñu jukkeel ñu ci suñu àlliwa ñu nafaraat ci li nga xam ne dinañu mën a dimbali suñu suñu suñu dund ak suñu diine euh, mise à part programme yooyu aussi am nañu programme bi nga xam ni moom mooy Ibra Fun boobu nga xam ni programme la bu ñu dugal récemment mooy bi jàppale nit ñi nga xam ni dañuy nekk fii ba yàlla def li gën ci ñoom programme boobu day nekk programme nga xam ni dafay dimbali nit ñi ngir ñuy euh, mën a jël seen koor yi delloo ko Sénégal ci lu dul am jafe-jafe donc boobu mooy programme Ibra Fane waaye tamit euh, ñu delluwaat fàttali mbokk yi rek ni euh, loolu moom mooy programme yi nga xam ni moom la ñu am ci semaine bi yëpp chaque semaine donc dañ koy am waaye ñu delluwaat rek rappeler mbokk yi que ni ñoo eh, ngi waajal eh, programme ITFA eh, muy suñu convention bi nga xam ne moom amal mois de décembre incha allah le 16 ak le 17 décembre incha allah programme boobu nak ñuy wax ñëpp rek ni ñu koy bàyyi xel te aussi réunion yi nga xam ne moom amal muy réunion de coordination yi doon les mercredis ñu ñaan nit ñi alaykum assalam wa rahmatullah ñuy ñaan nit ñi ñu joggé ci eh, daldi di joxe seen eh, joxe ci sen xalaat ndax dinañ ko soxla bu baaxa baaxa baax eh, mais aussi timit ci convention bi ñi ngi wara commémorer walé aussi moy centenaire Mame Maodo bi nga xamni ni danaka programme woon nañ ko def mais après ñu daal di koy jël dal bolé ko ak convention bi donc en grosso modo dal loolu lañu am comme lu ñu waroon rappeler ci ci maanaam xibaar yi nga xam ne war nañ ko joxe bala ñuy dugg ci waxtaan bi incha allah euh, ngeen jéggal ñu nag euh, ci guddal bi waaye euh, fàttali rek oustaz tey nag incha allah ñu war a waxtaane thème bi nga xam ne moom mooy nuñ koy waxateeti xifzul lisaan xifzul lisaan moy husnul khuluq husnul hmm. xuluq hmm. neelu jikko ci l'islam hmm. waaw xana rek kon ñu daal di ci ci waxtaan bi ñu daal di ñun jël suñu àlliwa rek ak suñu da daal di bind ko defee nga jukki ñu inshallah allah li nga ñu indil ci dara ci oustaz kandu ga ngi noonu eh, wa baxna eh, sang bi di oustaz chanduma oustaz chanduma Euh, man la Abdourahim. Abdou Abdourahim waaw. Abdourahim ah, ah, ñu ngi ñu ngi ñu kontaanaat bu baax ci seen programme bu solo boobu bu riche boobu. Mhm. macha allah yal na yàlla defal leen ci tawfiq. amiin ya rabbal alamin. Euh, daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. lii yàlla wax ci alquraanam ni innamal muminuuna ixwa. Mhm. te mooy mbokk ci wàllu pas-pas. Mhm. innamal muminuuna ixwa. Mm-hmm. mu'min la yàlla jëfandikoo foofu waxul waxul ni inna innamal muslimuuna na innamal mu'minuuna mm-hmm. moo ñi nga xam ne ñoo bokk ngëm-ngëm mm-hmm. booy seet sax ñooy ay mbokk piir ndax ci wàllu sharia euh, ki nga bokkal benn direct te du jullit tey bu deewoon doo doo ko donn du la kon booy seet mbokk piir sax mooy mbokk gi nga bokkal pas-pas tax yéen ñi bokk pas-pas macha allah àndul noonu macha allah yal na yàlla defal leen ci tawfiq amiin yaa di santaat yàlla bu baax a baax alhamdulilah sant gu yelloo ko jëmmam ju màgg ji tabarakallahu di taxaw ci buntam di tuubaa tuubaat di ko jégalu xam nga li may faral di wax ni jaam bi mm-hmm. fu mu natt boppam rek yëg ni war na fa sant borom bi subhaanahu wa taala mm-hmm. xéewal gii ñuy waxee muy xéewalu bëgg a wax wax mm-hmm. boo ko doon sant yàlla sa giirug dund mënoo koo matale bala nga koo xam mhm. nga dend ak ko ko ñàkk mhm. masalan koo xam ni mënta wax ngay xam xéewal gi la yàlla defal mhm. xéewalu dégg bala ngaa xam dëgg-dëgg xéewal gi nga toog ak koo xam ne du dégg dafa tex bi ci desit muy xéewalu gis bala ngaa dam xam dëgg-dëgg xéewal gi nga to dend ak wala nga nekk ak koo xam ne du gis xéewalu bëgg dox dox yooyu yëpp euh, lott nañ ci sant ko waaye dañu ñaan buur bi yàlla bu mu denc ñu santal boppam moo tax yàlla nee na wa in tauddu nicmatallahi laa tuxsuuha yàlla nee na xéewal yooyu boo leen ko bëggoon a lim doo leen ko mën a takk mais xoolal xéewalu nokki jamonoy covid bi rek ñi ko xamul woon xam nañu valeuru bëgg a noyyi noyyi macha allah kon yàlla bu yàlla denc ñu santal boppam amiin yaa rabbal aalamiin yàlla waxaat ni wa maa bikum min ni'matin fa min allah kon yooyu yëpp ci yàlla la bàyyi ko comme que ñun nag dañu lott ci sant ko yàlla bu yàlla denc ñu santal boppam amiin yaa rabbal aalamiin bu ci desi ju julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan buur yàlla yàlla bu mu denc ñu julli ci moom toujours damay faral di nettali samay waxtaan mani benn jaamu yàlla rek ngay def bokk kooku yàlla mi la bind bind yonent bi alayhi wa sallam te mooy di julli ci moom bu fekkee da ngay julli sa salawaatul xams yow rek def xanaa yàlla mi ngi ciy teewlu mhm. bu dee da ngay adaka yaa koy def bu dee aji makka waaye benn salaatu ala benn jaamu yàlla ngay def mhm. te mooy salaatu ala nabi mhm. boobu yàlla nee na man mi bind yonent bi man ak samay malaayika leen ci jiitu inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima moo tax borom مديح النبي الله أذكى تعبدي بني أن تقول أن تبي سال وسلام حقيقة مو جل تيمم كن يالله بو يالله دين جل جل تيمم نعم. ما تحسوا في رضي الله عنه دفعي آه، نكتلي ني دفع جس بين غورتي جمانو أجي نحن مباري لمو جل تيمم أن تبي سال وسلام نحن ماني كوي يو في جاي جل تيمم أن تبي في فلا سو تقول يالله nee na waa ji tontu ko ni ko ndax duma la xibaar ni ko inni kuntu fi baladi wali axun qad xadartuhu lwafaata fa nadartu ilayhi fa idan wajhuhu qad aswad nee na ndax duma la xibaare man dama nekkoon ci benn dëkk ak sama frère sama benn mbokk nee na ma fekke ba muy génn àdduna nee na keroog xaram xar kanamam dafa ñuul kukk kukk nee na ànd ak néeg bi ñu euh, lëndëm nee na loolu jàqloo ma moom Sufyaanu Sawri mooy nettali nee na loolu jàqloo ma nee na musuma gis xaal bu ni mel waaw moom Sufyaanu Sawri nee na musuma gis xaal bu ni mel nee na ba ma nekk ak moom ci biir néeg bi ma jekki-jekki rek am ku dugg si ci néeg bi mais ba muy dugg si maa ngi gis kanam gi leer waaw leeraay bi sax moo leera moo leeral néeg bi nee na ma gis mu muri sama frère boobu faatu woon nga xam ne kanam gi dafa ñuuloon nee na ma gis mu raay ko loxoom nee na ba mu ko raayee loxoom ma gis kanam gi mel ni weer ci leeraay nee na ba ma gisee loolu ma kontaan nee na ma laaj waa ji ni ko yow la kan yow ci yem yemu ma ci ma ni ko yàlla yàlla fay la waaw ci jëf ji nga jëf nee na man mu ni ko man malaaka la boo xam ne ana malakun muwakkalun bi man yusalli ala nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ni ko man malaaka laa boo xam ni dañ ma wakkil ci ki nga xam ni day julli ci bi sallallahu alayhi wa na man maa def nii sa mbokk mi ndax dafa daan bari lu mu julli ci yonent bi sallallahu alayhi kon loo ci yégee mooy salaatu ala nabi sallallahu alayhi nañ koy bari rawatina nag sallallahu alayhi nee na nañ koy bari rawatina bisu ajuma waaye waxaan na bi ci beneen xadis ni ëllëg yowmal qiyaam kii gën yey ci man mooy ku ëpp lu muy julli ci man inna awla naasi bi yowmal qiyaamati aktharuhum alayya salatan moo nañuy bari lu ñu julli ci yonent bi rawatina nag bisu ajuma shul El Hadj Malick dafa nettali ci ni'matu aafil jaani ni'matu aafil jaani benn téere la boo xam ni dafa dajale lettre yi Seydi Cheikh Ahmad Tidiane bind muqaddam yeeg xalifaam yi وي way ko daf ko ben téré mi ci netali néna guddi aljuma kuy faral di def salatu ala nabi daf ko ci sira salatu ummi اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم نانا يالا دينا لا جيكال بكارو 400 عام بو بو فكي دوندو لولو داي داي توب ساو اسكان ساو وي جور ساي دوم تبارك الله neen bu fekkee ci journée bi nga ko def nag waaw sopp nañ bu jullee tàkkusaanu ajuma nga def ko boo ko defee ci heure boobu yàlla dina la jéggal bàkkaaru quatre-vingts ans kon sallallaahu alayhi wa sallam bari lu muy julli lu ñuy julli ci moom moo tax Sufyaanu Sawri nee na lii nag moo waral waa ji waa ji moom jamonoy aj ñëpp di bàkk yàlla ñi naan labbayka nee na moom mu yitte woo rek salaatu ala nabi kon yàlla bu yàlla denjuñu julli ci moom sal sallallahu alayhi wa sallam kon bu ko defee rek di ziyaaraat sëñ Sidi Ahmed ak waa ITFA yëpp te ñu ñëwoon tànn e, thème bii di xifzul lisaani nga xam ni dafay duggaat ci thème bi nga xam ni suñu xalifa joxe woon na ko di thème centralu gàmm gi ci te mooy waqulu linnaasi xusna mm-hmm. dee leen waxante wax ju rafet léegi kon ci ngay mafhum muxaalaf bi mooy kon yàlla daf ñu tere ñuy waxante lu ñaaw xool yonti yàlla Muusa ak mbokkam ma yonti yàlla Haarun keroog ba leen yàlla di yabal ci sayidna euh, ci euh, euh, firawn lu mu leen sant da leen wax ni boo leen demee waqulaa lahu qawlan layyinan waaw na ngeen wax ak moom wax ju ju teey wax ju nooy kon tabaarakallah wax wax ju rafet dafa am solo léegi bi ci jiitu ci xifdul lisaani booy jàng sa laxdari bu seydna abdurahman al al axdari dafay wax ni war na ci mukallaf bi wa yajibu alayhi an yuxaafida lisaanahu wala wa yajibu alayhi an yaxfadu lisaan an yaxfada lisaanahu aw kama qal nee na war na ci mukallaf bi mu wattu làmmiñam min al faxshaa yi wattu làmmiñam ci wax ñaaw téef surtout jamono bii nga xam ni euh, war nañ ci yaraat njaboot gi léegi ñaawteef yooyu man bi ma ci jiital mooy ashirku billahi mm-hmm. mooy akbarul kabair te léegi làmmiñ tàmm na ko mooy utal yàlla ndend xoola sàng bi Seydi Abdourahman déglul yàlla ba muy waxanteeg yonent bi ba muy wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xoola muy wax ak نقول إن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين قال موي واحد يونتي بالله مقسم با بار التوكيد لك لا ان اشركت يا يونتي بي ما جومي بو اوتال مكو موي اسوسييل لي تخ نك واحد يونتي بي خامنا يونتي بي دوكو موي يونتي مونتا موي يالا واي يونتي بي موي اسوا بيغا خامني بو بوجي واخ خيتام تي يونتي بي جاري mu ni ko la in ashrakta boo ma bokkaale kenn la yaxbatan na amalu ko kon man yàlla loo mus a jëf gisatuma ko kon ci nga yégee ni bokkaale baaxul wala takunan na xoola ba tey mu tawkiidaat ko ba pare def laamu xasam wala takunan na min alxaasirin daga mujj nag bokk ci way perte yi yàlla ni ko balillaha faabud na nga lagg dem jaamu ji sa borom wa kun min ashakirin kon jaamu gi ngay jaamu sa borom boy xol sant yàlla pire moy dem def ay ndigale borom bi subhanahu wa taala mu waxa ci alquran ni di inna shirka la dhulmun adim neena boy xol ton pire moy bokale bur yàlla subhanahu wa taala kon buñu nan hifdhul lisan bi ci jitu moy fexe ba nit ki watu làmmiñam ci ci ci bokale bur yàlla subhanahu wa taala ndax yàlla qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam يكن له كفوا احد عبد العزيز بسم الله sans ojo bi daa mel ni ñëwatul de alma daal di xool ah dañ ko muté dañu muté sa micro bi. waaw baax na. yàlla waxaat ci téeréem bi. Eh, inna allaha la yaxfiru an yushraka bi yàlla nee na dinaa jéggale lépp ba mu des ku ma utal ndend inna allaha la yaxfiru an yushraka bi wa yaxfiru ma duna dalika liman yasha hmm. moo tax borom xam-xam yi ñëpp a dëppoo ni képp ku deewaale bokale ndax yàlla ko yaxal ci alquranam koku mom amul sik sakani munta baña bañ safara wal iyaadu billah kon buñu nan hifdhul xifdul biñ ci jital moy nit ki fexe ba watu lamiñam ci bokale utal yàlla ngend amna ko xamni day def ashirku bil lisan moy xëy agul ci xolam waye lamiñ bi mi ngi moy euh ñun sénégalais tàmm nañ ko yàlla ak diw xëy na boobu sax du bu garaaw waaye dégg naa maam Serigne Fallou radiyallahu anhu dafa am ko dikk ni ko gannaaw bu yàlla wéyee mun ko ma wéyaale rek <laughs> waaw waaw moo tax ma ni boobu xëy na sax du garaaw waaye daal bi gën a garaaw nag mooy ashirku bil qalbi mooy xol bi nga koy ngay utal yàlla ndend kenn kenn ci sax xol koo koy tollaleel kooku yal ci yàlla boole musal kon ashirku billahi war nañ di ko moytu xam ne yonent bi li muy rëy rëy daraja booy julli looy wax ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yamoo ci ci alquran ba yàlla ba yàlla di wax ci suratul isra subhana allazi asra bi abdi layla min almasjid haram te martabi bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na li dàq li ma yàlla woowee mooy woowe woowe woowe ma sama jaam kon jaam bi garaat la pire martabatu martabul martabatul abdi zullul mooy nga nangoo nekk jaam ci sa kanamu borom subhaanahu wa taala kon yàlla comme que yonent bi sallallaahu alayhi wa moo nangoo nekk jaam kon ñëpp ay jaami borom bi la yal na yàlla nangul ñu suñu nekk jaam te yàlla musal ñu ci bokkaale bi ci des mooy alxiiba wan namima te tasaaroo na léegi moy jëw ak ràmbaaj te yooyu dañ ko xeeb xeeb lool fekk mën na la yóbbu safara yaan ci yàlla boole musal moo tax mu ni amal ghiba faqad nassa allahu subhanahu wa taala ala zammiha fi kitaabihi wa shabbaha saaxibaha bi akli laxmi lmayita فقال تعالى ولا يغتب بعضكم بعدا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم nee bu dee jëw yàlla daf ko yaxal ci téereem bi nee na mu ndurale ki koy def sax ni day lekk yàpp medd yàlla ni bu mu jëw kenn lenn ci yéen wala kenn ci yéen ca kan ka ca wala yartab bu mu jëw baadukum lenn ci yéen baadan ci kaneen ci lenn ci lenn yàlla di misaal ni ayuxibu ahadukum an yakula laxma axihi mayitan fa karihtumu yàlla ndax nee ndax kenn ci yéen bëgg na mbokkam faatu yóbbu ko ba ci margo ba jox la masalan jox la fourchette jox la paaka tegal la furna nga dagg ci yàpp bi di lekk yala ni bañ leen ko kon loolu mooy jëw dégg naa ci suñu sëriñ sëriñ Babacar Sy Abdoul Aziz moom day faral di nettali nee na jëw te loolu yonent bi sax sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax nee na jëw li muy garaaw garaaw déglu jëw ko gën a garaaw ndax kii jëw boo ko mayul nopp du mën jaw moom day faral di wax loolu euh, moo tax jëw yan ci yàlla boole musal moo tax sallallaahu alayhi waxaat ci xadis ni kullul muslimi ala al muslimi xaraamun dammuhu wa maaluhu wa irduhu nee na jullit ne dafa xaraam ci moom sa mbokku jullitam sa mbokku jullit deretam sa mbokku jullit deretam dafa xaraam ci yow ngay tuur deretam ala alalamit dafa xaram ci yow lu dul mu yëkkati diko jox la ko deram dafa xaram ci yow kon boo jëwul nit ki yaa yaa ngi yaa ngi yaa ngi koy lor ci ci ci der ci deram waaw kon bu ko defee euh, yàlla saalu sallam dafa boole deret booleeg alal bokk booleeg der kon nit ku nekk war na di ko éviter mooy léegi dafa bari li ma doon wax ni Pape Serigne Mbaye Sy moo ko wax mu dëppoo gi wax yonent bi mooy nit ñi dañu dañu xamul lan mooy jëw xam nga jëw mooy wax dëggu goo xam ne mi ngi ci nit ki mm-hmm. waaye bu toogoon doo ko tudd loolu la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale nee na loolu mooy jëw mm-hmm. mais Sénégal nag moom li ci ëpp dañ lay sosal ba pare boole ñaari bàkkaar ba pare jëw la mooy dañ lay waxal loo xam ni amul ba pare boo toogoon duñ ko wax mooy li ma bëgg a wax mooy jikko yu yàqu na léegi surtout jamono yi ñu toll nga xam ne technologie bi dafa avancé avancé mais léegi ci la yàqante deet gën a yaatu xoola masalan nga toog sa jël sa portable sosal nit ki waxal ko loo xam ne dara amu ci waxal ko loo xam ne dara amu ci mu leer na la yow boo leen toogoon doo ko wax nga yàq deram moo tax Serigne Cheikh day faral di wax ni bari na ku ni musuma rey nit waaye nañ ci teey léegi-léegi nga wax nit benn kàddu boo xam ni ëllëg kàddu ga nga ko wax moom lay misère di ko misère ba faat kooku boo ne musoo rey nit da nga naan musuma jam nit wala musuma dóor nit balu pistole waaye mës nga rey nit mus nga rey nit moo tax sëñ Babacar Si radiyallahu anhu daan na faral di wax ni man Babacar Sy yéemu naa ci laa ilaha illallah tim la ilaha illallah allah la laa ilaha illa rendi la ilaha illallah allah ëllëg bu ñu dajee ci kanamu la ilaha illallah allah lu ñuy lay laa ilaha illa allah mooy bëgg wax mooy léegi da ngay tiim nit rendi wala nga tiim nit wax ko kàddu goo xam ni ci lay moom lay misaal ba faatu ëllëg boo leen dajee ci kanamu laa ilaha illa allah leen looy laa ilaha illa motax dañu fexe ba wattu suñu làmmiñ ci ñaawteef yoy moy di jëwante te légui yomb na lool nak yomb na lool légui légui nit ki da koy tam ba bu koy def sax du ko tey moo tax sallallaahu alayhi la tahasadu waxaat ni laa taxaasadu wala tabaaxadu wala tanaajashu wala tadaabaru wala yaxtab baadukum baada wa kunu ibadallahi ixwaana sallallaahu alayhi wa sallam nee bu leen soxorante bu leen bañante nee na bu leen wanante ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxaat ni bu leen jëw kenn ci yéen bu mu jëw moroomam wa kunu ibadallahi ixwaana na ngeen na ngeen nekk ay jaami yàlla waaye na ngeen nekk ay frère ku ci nekk la nga bëggal sa bopp bëggal ko sa moroom sallallahu alayhi wa sallam dani laa yuminu ahadukum xatta yuxiba li axihi maa yuxibu li nafsi sallallahu alayhi wa sallam nee na kenn ci yéen du gëm yàlla lu dul li nga bëggal sa bopp nga bëggal sa moroom ndax kenn ci ñun bëgg na ñu yàq sa der kenn ci ñun bëgg ko kon euh, nañ koy bàyyante xel nit ki boo xamee ci moom lu rafet waxal te nga noppi sallallahu alayhi wa dani ida aradta an tazkuru an tazkura uyuba gayrika fazkur uyuba nafsik sallallahu alayhi wa sallam nee na boo namee dug tudd ayibi kenn néna na tuddal sa ay ayib nit ku nekk yëg nga loo def sa borom loo xam ni wóoru la ba xam yàlla jéggal na la koom déet kon say ayibi bopp na la na la doy walis ayibi keneen mais malheureusement léegi jëw gi yemul sax suñu biir waaye day dem ba ci nit day wékk sax di jëw kilifaam rawatina nag sa kilifa gi nga xam daf la jox tariqa moo tax sallallahu alayhi wa sallam mi ngi nettali ni marartu laylata usriya bi ala aqwaamin yaxmasuuna wujuhahum bi adaafirihim fa qultu ya man قال هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم نينا كيروك بما يالا دي رانيان نينا دما رومب اي نيت يو خامني نيغي جيل سيني وي ديكو جام سيني كانام نينا ماني جبريل ني نيان لا nee na mu ni ko ñii mooy ñi nga xam ni dañu daan dëw nit ñi ba pare di tab di di tabbi ci seen der yi di dëw nit ñi waaye foo leen fekk rek ñu ngi wax ci nit ñi wax yu ñaaw kon ngal la nañ ko moytu moo tax yonent bi dafa mus a xutba wax ni yaa machara man amana bi lisaani walam yumin bi qalbi la tatabul muslimin wala tattabiu awratahum fa innahu man تتبع عورة عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته yafdaxahu fi jawfi baytihi saal wa sallam dan ni yéen ñi nga xam ni gëm ngeen ci làmmiñ rek te seen xol yi gëmul waaye bu leen di jëw nit ñi bu leen topp seeni awra rek waaw bu leen topp seeni awra rek nee na mu ni képp koo xam ni topp na di luñut awra mbokkam nee na yàlla dana ko topp ci awram te ku yàlla topp ci awram dina la gàcceel donte la yaa ci sa biir kër wala yaa sa biir néeg léegi-léegi nga gis koo xam ni dina def loo xam ni amaan na kenn fekkewu ko waaye nekkoon ci deru góor ñi lu ne mu ko daan yàq moo tax léegi-léegi yàlla du la weeje waaye dalay fay jëf jënga jëf mooy ñëpp xamal la ayib boo xam ni aman na sax waruñu ko woon xam ci yow gisoo ba ci néew lu ci sallallahu alayhi wa sallam wax dani udkuru maxaasina mawtaakum wa kuffu alsinatakum am mawaasihim sal wa sallam bu ñu tegee néew day faral di wax ni loo xam ci moom ci lu rafet wax ko loo xam ci moom rafet wax ko nee na la nga xam ci mom ci safaan nag na nga fek fekk yi nañ ci fekk sa làmmiñ waaye ñun malheureusement da ngay gis sax ñu euh, nekk ci réseaux sociaux bi ay nit yàlla yoo xam ne liggéeyal nañ yàlla ba yàlla gërëm leen lu ne nga koy yàq di ko wax ci seen xaq te yow fekkee woo seen jamono wala fekkee ku fekkee seen jamono waaye am nga dëgër fit rek am ñeme yàlla lu ne nga waxal leen te xamoo ni ab jullit warul wax ci mbokk jullitam lo xamni safan la donte le wér ko sax li la leer sax waroko wax ci ñom waxuma lak li nga xamni leerul ci yow motax kon bu ko defé faawu ñu fegat lamiñ yi faawu lamiñ yi ñu defaraat ko motax sayyid sëriñ xaaji malik radiallahu anhu yàlla nañ ko yàlla fayal nee na lisaanaka in atlaqta yakulka innahu ka laysi sara alaadi aljari wa suubu bu ko booyal mukk sa làmmiñ bu ko booyal mukk dem ci góoru deru góor ñi lu ne nga wax leen nee na boo ko defee rek nee na làmmiñ bi day mujj di la lekk yow dafay mujj mel ni gaynde gaynde gu rañaan gaynde goo xam ni dafa day aji jalgati gaynde gu ñeme nee na boo xam ni tëbaakoon la nee na sa làmmiñ boo ko booyalee dafa mel ni gaynde nee na foog nga ni yow nit ñi ngay lor waaye dafay dellu dellu delu ci wat ci yow motax muni wa imma turid aunan alayka bi udlatin wa ju'in wa sumtin in wa sumtin innahu lanajib neena ndax bu da nga bëgg ndimbal neena ma ngi lay ngay beru ngay beru ngay beru neena ngay xif neena ngay noppi ndax neena na noppi lu bax la batu nopp bi surtout la ci gëna sopp te xaj maa ngi bu fekke ag ci yàlla nek la neena yi moy mooy pied yi waaw neena bu de ag ci yàlla nek nek la neena yi moy mooy pied yi moy nango xif waaw arkanu baytin turiduna dukhul bihi ju'un neena nango xif wa uzu nango beru beru buñ koy wax nak moy beru di bàyyi yàlla xel waxñu la nak fo tollu di beru du te yaangi di nga waxtaan ak sa ay mbokk génn sotante xalaat ngeen waxtaane lu jëmale seen réew kanam société ba kanam seen nekkin kanam waaye be bu fekkee loolu mën mënoo ko am nee na beru moo ciy gën am sa alai sallam nee na man kaana yuminu billahi wal yawmil akhir fal yaqul xayran aw li yasmut xam nga wax na ko ci xadis nee na képp koo xam ne gëm nga yàlla gëm bisu penc mooy bis bu mujj ba nee na waxal yiw aw li yasmut boobu aw boobu maanaa wala waxal yiw te nga noppi mm-hmm. waa du caageenu dañ naan la xal yi wala noppi waaye yiw moom foo ko gisee rek wax ko mm-hmm. boo demee ba nammat gisatoo yiw woo wax nee na noppi mm-hmm. moo tax Cheikh Alxaaji Malik ni arkaanu baytin turiduna duxula bihi baytul wilaaya la ci nam nee na bu fekkee àgg ci yàlla néeg la nee na pieds yi yii la juucun nangoo xiif wa sumtun di noppi wa uzlun di beru sëhru aji fani ak di wetal sa borom tabarakallah guddi gi leg leg nga juk di bàyyi yàlla xel motax Seydil Malik ni mom noppi lahu sabatu alaf fi l xayri xussima noppi yàlla defal na ki noppi juróom-ñaar fukki junni yiw yo xamni ne nako ci jurum naari baat nena na adaaka yàlla na jéggi la xutubu mbamb yi mu ne mu waxaat ni naam innahu zaynun nena nopi da fay waral tar fexe ba fek sa làmmiñ nee na noppi dafay waral sutura naam innahu zaynun wa sitrun wa qurba nena te téye sa làmmiñ day waral sutura ndax léegi-léegi bari na ko xamni xamuñu ko dafa nopi waye bari na bari na ko xamni li liy wujji moy bari lu muy wax motax wax yi rek ta nopi neena nopi it da fay wara waral nga jege sa borom subhanahu wa taala neena nopi tatalla wa hisnun dalay protéger waaw kon bi ci desit yamu ci wa babal i'tizari yajubu wa neena buntu ngant it نوبي داكوي ورال نانا بيتي ديس مريح الكرام الكاتبين نانا نوبي داي نوبال ملاك ييغا خامني نيوي بيند دانغ لين نوب دانغ يالا نانا يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يالا نانا ku ci nekk am na ñaari malaaka yu nekk sa eh, say ñaari wagg nee na ñooy kiraama kaatibiin nee na bu fekkee da nga wax yiw dañuy gaawantu bind ko bu fekkee da nga wax safaan nag dañuy gaawantu dañuy duñ ko gaaw a bind dañuy xaar nga jéggalu sa borom ba mu des boo waxee safaan ci nit moo tax li ma doon wax ci jëw bàkkaaru jëw ki nga jëw moo la ko mën jéggal motax tax mag ñi dañu am stratégie bu feet yi daan am lu melni gamu wala lu melni tam xarit lu melni ni julit ñi te moy tabaské korité nga profito ndax ak dafa sew nuyu sa mbokk ni ko baal ma ci ak bu mu la amel mu la baal naa la tabarakallah fekk yow ba ngay bal yene nga ci loolu tabarakallah ndax am na ci yene jëfin yo xamni kuko waxal nit wàññeeku nettali ko di ko du ñep nit ñep yam amana ko xamni boko waxe dina la ëmbal benn haine boo xam ni yan ci yàlla boole musal moo tax mag ñi stratégie boobu lañ daan def nee na kon noppi dana waral taar dana noppal malaaka yi bind waaye dana waral taar mu ni fa nicma samuutun xaashiun wa adibu nee na baax na aji noppi koo xam ne day toroxlu ci borom koo xam ne dafa am teggin ci kanamu boromam comme li ma ci bëgg a wax rek mooy nañuy fekk làmmiñ ba fexe duñ ci Euh, bari lu ñuy wax safaan moo tax mu ne ala qalla man qaalat annaasa saamitan fala budda min qiilin wa qaala yaribu nee na nag noppi ku ci bëgg a mucc del néew loo jaxasoog niñ ñi nee na néew na ku koo xam ne foo ko fekk mi ngi toog ci nit ñi di wax rek bëgg a noppi mënta nekk koo koo xam ne foo ko fekk mi ngi ci nit mi ngi jaxasoog nit ñi bëgg a noppi Cheikh Hadj Malick nee na loolu mënta nekk على قل نيونا من قالت الناس كوجا حسوك لين سوامي تندينوب نينا فلا بد منتنياك من خيلين وقال واو وخيفنا وخنا تولي غاي واخ داغي سيك رك دار وورو لتي كون غال لا مبوكي ماغي دينك سما بوب دي لن دينك نوي فيغات لامي تي اي نياوتيف rawatina li ñu tàmbalee te mooy jëw moo tax sëydi cheikh xaaj mohamed mansour nee na ca yaa yaa xaaliqi mi ngi naan bayit ba ku fal lisaana wala tutliquhu dha hadarin an irtiyaabi namimatin wa buhtaanin nee na na nga fexe ba yow jaam bi yow Abdul Aziz ku fa na nga fekk allisaana sa làmmiñ an irtiyaabi ci jëw fu ñu la fekk rek yaa ngi jëw jaami yàlla yi wa nima wa namimatin yaa ngi rambaaje waaw أن يرتيا بنبي نميمة ويموتي بوتاني أك دينار لني لو خم أه، وخلنكو آه. صلى الله عليه وسلم دفو موسى توك تي بنتي مك أم بن مبكو مجن أدنى صلى الله عليه وسلم نكيد مستريح مستريح مستريح صلى الله عليه وسلم نكيد داي نوبلوجي لغي ني توغات جيم جامانو am ku ñëwaat am néew bu ñu bu bu rombaat sal wasallam ni kii de mustaraaxun minhu mustaraaxun minhu mustaraaxun minhu sahaba yi jaaxle laaj ko ni ko yonent bi lu waral loolu kii nga ni mustariix kii nga ni mustaraaxun minhu mu ni kee mustariix dafa noppalu ji ndax gëmoon na yàlla tama yon na jaami yàlla yëpp jàmm mu ni kee nag donte le kenn dàqu woonu julli kenn dàq woon a julli kenn dàq woon woor kenn dàq woon a adaka waaye ànd loolu lépp nag dafa nekkoon ci mayul woon mbokk jullit yi jàmm waaw ku nekk mu ŋàññi ku nekk mu xas waaw te xamoo ni sallallaahu mi ngi nettali ku fallasu la ko mag ñi daan fiire mooy ku ñu saisir koo xam ni ëllëg yowmal xiyaam léppam dina baax ci ay ibadat julli buñ ko vérifié julli ga dana baax bu dee koor dana baax bu dee azaka dana baax bu dee dem màkka dana baax waaye li koy gàllankoor mooy ame nit ñi ay àq nee dinañ ko àtte mu da mu war a dugg aljanna am ku yëkkati loxo masalan ni yàlla kii kat te yàlla gën a xam lépp ni yàlla kii kat mus na ma xas yàlla mooy alimul xaybi wa shahada yàlla xam na lépp yàlla dara ump ko yàlla ni wax na dëgg ñu jël ci sa yiw faye ka nga xasoon amoon ku ni kii kat mës na ma jëw ñu jël ci sa yiw faye ko ndax àq la boo ko ameel ñu jël ci sa yiw faye ko nee na am kuy demandé ba yow deseetoo benn yiw am ku demandé waat te fekk yow sa yiw jeex na nee na yàlla ni comme que yiwam jeex na nañuy jël bàkkaaru waa ji mu tooy ko ko nee na ñuy def noonu di la ko sëf ba nga ànd ak loolu dem safara kon loolu sawar sawar làmmiñ jaru ko kon jëw yàlla nañ ci yàlla boole musal amiin rabbal alamin moo tax sallallaahu alayhi wa sallam waxaat ci xadis bu sayyidina anas solo wa qaala anas xatabana rasulullahi sallallaahu alayhi wa sallam wa zakara riba وعظم شأنه نانا يونتي بي بيس داي خطبه نانا تودو ربا نانا ماغال ميرو ربا بغل لينا واخ ني ربا دو مير مو ويف موني ان الدرهم يصي به الرجل من الربا اعظم عند الله في الخطيئه من 36 زينه يزنيها الرجل واربع الربا عرض الرجل المسلم نانا صلى الله عليه وسلم ني بن درم boo xam ni jël nga ko ci sa moroomu góor ci riba mooy jël nga ko ci sa mbokk rek nee na moo gën a màgg ci yàlla ci ñaawteef ci fanweeri njaaloo ak juróom benn nee na nga jaaroo fanweeri njaaloo ak juróom benn lekk sa benn dërëm boo xam ni lewu la ci sa mbokkum julit moo xam danga ko danga ko euh, këf ci moom wala nga nax ko fexe ba lekk ko ci moom nee na loolu moo gën a woyof ci yàlla fanweeri njaaloo ak juróom-benn ak njaaloo ni mu bone yan ci yàlla boole musal yàlla ba muy wax ci njaaloo dani bu ko def dani bu ko jege waxul bu leen ni nag riba bi gën a garaaw xam ne na riba moo gën a garaaw fanweeri njaaloo ak juróom mu ni riba bi gën a garaaw ci riba mooy ci sa góoru eh, deru mbokkum jullit kooku moom nee na booboo gën a garaaw kon bu ko defee loolu la ñu doon wax rek ci jëw ngeen bàyyi ko xel bi ci des ñu bëggoon a waxtaan ak yéen ci wàllu rambaaje rambaaj eh, jikko la boo xam ni bu ñu bu la ba yàlla mi ngi koy wax ci alquran ci suratu noon hamazin masha'in bi namim waxaat ni utullim ba'da dhalika zanim moo tax sa seydna abdullah ibn mubarak nee na azzanim waladu zina alladi laa yaktumu alxadis zanim nee na mooy doomu njaaloo bi nga xam ni du nëbbu du nëbbu xadis du nëbbu benn wax nee wa ashaara bihi ila anna آه، كل من لم يكتم الحديث حديث ومشى ومشى بالنميمه دل على انه ولد الزنا نانا مجنجوني كيب كو خامني دو نيب واخ دي دوختي دام رمباج نانا داي تكتلني كوكو دوم نجالو لا يانتي يالا بولي موسل نانا استنباطا من قوله عز وجل عتل بعد ذلك دنيم نانا يالا واخ بامو واخ تي لن كو استنباطي motax yàlla ni waylul li kulli humazatin lumaza borom xam-xam yu bari amna ñu ni humaza yàlla lim ci nam moy annamam yàlla waxat ni ci suratul masad xammaalatal xatab am na yeneen borom xam-xam yu wax ni annaha kanat namama umu jamil da daan rambaje motax hamalatun lil xadiisi motax hamalatul hatab mom li tax ñukoy koy lol moy mooy xamaalatun lil xadiisi da daan yennu ay wax waaw di ràmbaaje ay jaam da sal wasallam ni laa yadxulul jannata nammaamun sal ay nit sal wasallam nee du dugg aljanna kon ab jaam lépp loo xam ne da koy teree dugg aljanna war na cee góorgóorlu daw ko lu wa qaala abu darda qaala rasulullah sallallahu alayhi wa ayuma rajulin asha ala rajulin kalimatan wa huwa bari'un li yushiniha wala li yushinahu biha fi dunya kaana xaqan ala allah an yushinahu biha yowma alqiyamati fi nnaar nee na képp koo bépp góor boo xam ni dafa siiwal waxu nit waxu benn góor nee na li mu bëgg ci loolu mooy ñaawal rek wala yàq deram fii ci àdduna nee na yay na àq la ci yàlla ëllëg yowma alqiyam mu ñaawal deram te yàlla du ñaawal deram wax naa wax naa la ko sànq jëf jënga jëf lañ lay këppaat rek ëllëg yowmal qiyam te lim la koy ñaawale mooy ñaawa ñaawa ñaawalee ko dugal dugal ëllëg yowmal xiyaam mu dugal la ci safara yan ci yàlla boole musal moo tax sallallaahu alayhi dafa musa romb eh, ay armeel ànd ak saxaaba yi nee na mu armeel yi kat ñetti nit fi wala ñaari nit fi waaye yàlla ngi leen di mbugal mbugal mu taratar dagg benn caru tàndarma loolooy aada sax bu ñu robee néew nga gis ñu tagg tagg dagg caru garab Euh, samp ko ci fi tolloog bopp bi nee na mu ni saalu wasalaam teg ci ni feeg car yaa ngi tooy yàlla di woyofal seen bugal saxaaba yi laaj ko ni ko lu waral seen bugal mu ni kenn ki daraan def bu tuuree ndox du ferlu du ferlu bu tuuree ndox moo tax loolu jàngat la boo xam ni surtout góor ni ko yàlla bindee boo demee euh, dem ci toilette yi bul yàkkamti ndax bari na kuy julli sal si xaj malik radiallahu anhu mi ngi koy wax ci fàkkeetu turaabam ba ni waqad yashibu aridal insaani ma akmala salaati ila rahmaani nee na bari na kuy julli ba ay kaababam be weex tàll ci ay bijaaw te musta julli julli gu yàlla nangu yan ci yàlla boole musal te loolu bokk na ci li koy waral mooy ñàkk farlu ñàkk ferlu ñàkk ferlu sallallahu alayhi ni kenn ku loolu la ko yàlla dimbugalee nee na mu ni ki ci des da daan rambaaje ay nit fu mu fekk ñaan ñuy ànd rek mu fexe ba wax seen diggante loo xam ni dina ko yàq xamoon ni ci sharia fen li muy garaaw garaaw dagan na ci ñaar ñoo xam ni dañu ñàkk déggoo nga dem ci kële donte la keneen ki yëgu la dem ci moom ni ko diwkat man ci diw laa jóge waaye loo xalaat ci wax ju baax wax na ko ci yow te fekk sax yëgu la boo jógee ci ka nga demoon demaat ci keneen ki ni ko man kat ci diw laa jógee waaye xam naa ni sopp na la li mu wax ci yow ay mbaax xam naa ni réeroo moo amoon seen diggante sax waaye xam naa ni moom jàppal la dara te moo ne yëgoowuñu sax ñu gisee gisee saafonte loolu da nga ciy am tuyaaba moo tax Seydina Jibril ngéej woon na nekk jullit mooy daf islaaxu zaatil bayni mooy fexe ba defar ay diggante moo tax li ma doon wax ci xifdul lisaan fexe ba watu lami watu lami yi ci wax ay ñaawteef ñaawteef buñ ko waxé mooy lépp lo xamni euh euh lu yàlla gërëmul la nga koy génne ci sa làmmiñ rek ñaawteef la kon ngal la wa qulu lin nasi husna bi khalifa bi wax nañ ko bàyyi xel fexe fexe bay waxante wax yu rafet ngal la nañuy waxante wax yu rafet ci wéet ak ci wéttaliku bo démé ba mëna to wax wax yu rafet ngal la téyel sa làmmiñ moo gënal yàlla ngay wax ci sa mbokk jullit wax joo xam ni gërëmu ko kon bu ko defee liñ ci bëggoon a wax bari na waaye ñu njëkkanteeg waxtu wi rek tabaarakallah bi ci des ñu taamu woon ngëneelu xusnul xuluq muy rafet jikko nga xam ni sallallahu alayhi wa moo gën a tedd ñëpp askan yalla taw benen bi foko nak ci bind ci askan ci lu meuna doon moko gën la ñep قال وصلى مام الحاج مالك نينا من كل وصف حميد هذا افعل تفضيل رجاء البرايا يوم مزدحم بيب ميرو ني سانت نينا صلى الله عليه وسلم موتي ام بتيغن لا تيغن nee na sallallahu alayhi wa sallam moo ko làq waaye ànd ak loolu lépp li ko yàlla taggee dëgg-dëgg mooy wa innaka la ala xuluqin azim mooy dëgg-dëgg yow yonent bi bu doon jikko teg la boo xam ne dañuy toog ci kaw yow yaay teg wa mooy du yonent bi dafa rafet jikko waaye bu fekkoon jikko lu ñu mën a misaal la muy jëmm nee na sallallahu alayhi wa moo toog ci kawam moo tax daan na wax ni بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يلا دف ما يوني غير ما موتلي تدنغي جيكو كون يا عائشة بس دفاي نيو كوسو مرير يونتي بن تل مونيكو وادي مالو منك لم ترى قط عيني كون لي ما دون واحتي بند مكو داخلي نيب واجمل منك لم ترى قط قط عيني مونيكو رفتيني يو يو يونتي بي صلى الله عليه وسلم bët musu ko gis wa akmalu minka ku matee ni yow lam lam lam talidi nisaa jigéen musta sukku jur ko xuliqta mubarra'an min kulli aybin nee na sallallahu alayhi wa sallam yow yàlla daf la bind nga mucc ayib amoo benn ayib ka annaka qad xuliqta kama tashaa yàlla daf la bind bala yàlla di bind dafa mel da nga jàkk dafa jàkkaarloog yow naan la waxal noo bëgg ma bindee nga naan ko bopp na mel ni na mel nopp yi na mel ni gémmiñ gi na mel ni tabarakallahu kon yonent bi moo gën a taaru ñëpp waaw huudun wa yunusu min bahaaka tatajammala yonti yàlla huud yonti yàlla yusuf ñoom ñëpp ñi ngi taaroo ci sa taaru yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ànd ak loolu lépp ba ko yàlla di tàgg lu mu ko tàggee wa innaka la ala xuluqin azim ba tey yàlla daf ko tàggaat ci jikko lu ko yàlla tàggee mooy fa bi maa raxmatin min allahi linta lahum fa bi sababi raxmatin min allahi linta lahum yàlla nee na ci sababu yërmande bi ma def ci yow ci nga nooyee nii walaw kunt galiza al qalbi lan faddu min xawli ne bu fekkoon walaw kunta faddan da nga da nga da nga dëgër wow xol nee na kon saxaaba yi duñ la wëree ni kon loolu loo ciy déggee mu jikko yonent bi dafa nooyoon yonent bi dafa nooyoon moo tax yàlla tàgg ko ci jikko waaw tabarakallahu moo tax yaay Aïcha bañ ko raajee radiallahu anha dani kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xuluquhu lquran wa saala rajulun rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an xusni alxulq فتلا قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين يونتي بي صلى الله عليه وسلم دا فام واجو كو لاج ñu ko lan mooy rafet jikko mooy ngay mu ni ko ngay jéggale waaw mu ko ngay jéggale bokk na ci rafet jikko nit ki du dalay def rek nga def ko nee na bu ci yem waaye del digle lu rafet lu njekk nee na wa wanal wanal ginnaaw ñi nga xam ne dañoo réer ñi réer nag mooy ñi wan yàlla ginnaaw ñoo ñoo réer mu ni nag sallallaahu alayhi wa sallam waxaat ni huwa an tasila man qataaka nee na rafet jikko moy képp koo xam ne daf la dog nee na dee ko yow képp koo xam ni yow dafay dog sa digganteeg moom nee na yow dee ko jokk moo xam ci mbok la ci deret moo xam ci mbokk la ci wàllu pas-pas nee na bu ci yam wa tooti man xaramaka nee na képp koo xam ne buy joxe dalay xañ yow booy booy joxe jox ko hmm. waaw ngay jox képp koo xam ni daf lay xañ moo xam cër cëru cër bu mu mën a doon moo xam cër la moo xam alal la moo xam lu mu mën a doon nee na yow moom bu fekkee daf la koy xañ yow dee ko jox nee na loolu bokk na ci rafetu jikko bu tegaat ci ni wataafu amman zalamak nee na képp koo xam ni daf la tooñ nee na nga jéggal ko keroog fatxu maka lu yonent bi sallallahu alayhi dafa yéeféeri màkk foogoon ni yonent bi doole ji ko yàlla jox day faju mu ni yéen loo leen foog ni moom lay def ñu ni ko ku baax nga doomu ku baax nga mu ni mu ni leen jéggal yéen ñëpp boyal naa leen yéen ñëpp jéggal naa keroog ca taif taifa lu yonent bi sallallahu alayhi def fekk wa màkka dañ ko sonal embargo ko tabarakallahu mu ni ku am kër baay am nga kër ndey demoon taif ngir rawale diineem keroog ba mu demee ay nijaayam luñ ko booleel ay xajaki ay xale keroog euh, xaaj nañ ko ba sey xaaj Maalik nee na deret ji mi ngi rogalaat jëm ci tànk bi nee na euh, sey sey euh, ibnu xaaris moo mujj tëdd ci kawam ndax xeer yi ñu ko doon dóor lépp waaye keroog yàlla yebal Jibril ni ko demal ci sama soppe bi ni ko ñaari montagne yi ëmb dëkk bi bu nee waaw rek bu joxee ndigal rek ñu maasale ko ci dëkk bi benn yoon ñu far benn yoon dootuñu exister keroog lu yonent bi tontu mooy yàlla jéggal leen allahumma agfir li qawmin fa innahum laa yaalamuun yàlla jéggal leen dañu xamul rek kon képp koo xam ni sopp nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba jikko yu rafet yooyu nga jël ko ci moom képp ku la tooñ nga jéggal ko moo tax waxoon naa ko sànq saalu wa salaam dan dani innama bu'istu li utammima makarim al axlaq yonent bi nee na yàlla daf ma yónni ngir ma mottali tedd ngay jikko moo tax waxaat na moom yonent bi saalu wa salaam ni athqalu ma yudaau fi lmiizaani yowma alqiyamati taqwa allahi wa xusnul xuluq saalu wa salaam nee na ëllëg yowma alqiyaama lii gën a diis ci balance bi ñu tegee balance bi nga xam ni ci la ñuy peesee jëfi jaamu yàlla yi ëllëg yowmal qiyam nee na bi ciy féete kaw mooy ragal yàlla nee na ba ca topp mooy rafet jikko moo tax booy xool sax rafet jikko dafa duggaat ci biir ragal yàlla ndax nit bu ragalee yàlla rek dafay rafet jikko moo tax yàlla ni inna akramakum inda allahi atqaakum waaw waaw waaw yonent bi sax waxaat na ci beneen xadis ni ki gën ci yéen mooy ki gën a rafet jikko ki gën ci yéen mooy ki gën a rafet ko te di confirmer li wax di yàlla wax ci ragal yàlla moo tax sallallahu alayhi wa sallam ni ëllëg yowmal xiyaam bu ñu tegee balance bi li fay gën a diis mooy ragal yàlla ak rafetug jikko moo tax benn góor wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko dama bëgg nga dénk ma sallallahu alayhi wa sallam lu mu ko wax mooy ittaqillaha na nga ragal yàlla xaysu kunta foo mën a nekk foo mën a nekk na nga ragal yàlla bu ñëwee foo mën a nekk nekk nag moy ci wéet ak ci wéttaliku moo xam da nga nekk sa réew moo xam da nga nekk bitim réew waaye yàlla mi nga bàyyi sa réew moom nga fekk foofu kon ragal yàlla bañ ko laajee sidi cheikh ahmed tijani maana taqwa taqwallahi dani imtisaalul awamiri mooy li la yàlla digal nga nekk ci wajtinaabu nawaahi li la yàlla tere nga bàyyi min xaysu yarda la min xaysu tarda nee na defee ko ni ko yàlla bëgge waaye bu ko defee ni nga ko bëggee moo tax sal wasallam waxaat ci benn xadis ni al imaanu laysa bitamanni wala bitaxalli bal ma waqara fi l qalbi wa saddaqahu l amal nee na gëm yàlla nag mooy ragal yàlla nee na ay takkaay yooy takk du yére booy sol al imaanu laysa bitaxalli waaw wala bitamanni بل ما وقع في القلب نينا موي لو خامي داي تاب سي سخول لولو ايمان وصدقه العمل نينا تيري ديكو جيفي كون لول موي راغال يالا موي معنا راغال يالا متى سيدي الشيخ متيان كون لول لا تي واخ موتاخ صحابي بي كو تي يونتي بي نيكو دنك ما مون كو نغا راغال يالا حيث كنت فو مونا نيك نينا مون يونتي صلى الله عليه وسلم زيدني يونتي بي دوليما صلى الله عليه وسلم اتبع السيئه الحسنه تمحوها nee na boo juumee ba def lu bon nee na na nga profité def ci ginnaaw lu bon loolu lu rafet ndax lu rafet loolu mooy far yu bon yi ngay def inna alxasanaati yuzhibna sayiaati nee na yiw yi ngay def yi ngay def ci ay njuumte nee na yiw yi moo koy far nee na saxaaba yi bi waxaat ko ni ko yonent bi dénk ma mu ni ko xaaliqun naasa bi xulqin xasan bi xulqin xasanin muñ ko da nga fexe ba jikko jikkoog nit ñi jikko ju rafet waaw fexe ba jikko jikkoog nit ñi jikko bu rafet waaw motax khalal khalal qaala qila li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qila li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ان فلانه تصوم النهار وتقوم الليل وهي سيئه الخلق تؤذي جيرانها بلسانها jiiraanaha sallallaahu alayhi wa sallam nee na dafa am benn ndaw su ndaw benn jigéen boo xam ne <clears throat> da daan woor bëccëg bi guddi gi mu koy fanaanee naafila waaye nag moom dafa ñàkk da daan lor ay dëkkandoom waaye lor ay dëkkandoom bi lisaaniha ci làmmiñam kon li ma daan li ma doon wax ci xifdul lisaan booy seet sax moom xusnul xuluqi من بوسلا فيغو تي تيف بوبا ام غا حسن الخلق مونيكو كو كات دان نو وور بتيك بي نا جولي غودي بي واي دا فا امون جيكو جو نياو با دا دان لور اي دكلوم تي لامينم نينا صلى الله عليه وسلم نيخ لا خير فيها هي من اهل النار يونتي بي نينا كوكو امول بن نيو كوكو تي وا وا سفر لا بوك تا كات دا دان فنانه نافله دا دان وور بتيك بي واي اندك لول ليب دا دان لور اي دكلوم waaw daan lor ay dëkk dëkkandoom yonent bi ni kooku amul benn yiw ci yooyu muy def moo tax sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na ci ay ñaanal ñaanam saidul xudri moo ko nettali nee na kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu fi duaai allahuma kama xassanta xalqi fa xassin xuluqi daan na wax ni yow yàlla ni nga rafetee sama bind ndax yàlla nee na maa bind laqad xalaqna al insana fi axsani taqwim yàlla nee na maa bind nit gën jaa rafetu bind moo tax sallallaahu alayhi wa sallam li yàlla bind li ci dàq mooy bind bi mu bindee nit daf ko bind mbindum bu rafet moo tax sallallaahu alayhi wa sallam bokk na ci ñaanam daan na wax ne yow yàlla ni nga rafetalee sama bind yàlla nga rafetalee noonu sama jikko bu sa bind rafetee sa sa jikko rafetul amul benn solo waaye sa bind bu ñaawoon sax te sa jikko rafet am na solo tabaarakallaahu kon nañu fexe ba di rafetal jikko yi ni yàlla rafetalee suñu ay bind moo tax sallallahu wa sallam wax ni inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum wa aqrabukum minni majlisan yawma alqiyamati wa xaasinukum axlaaqa sallallahu alayhi wa sallam nee na ki gën a sopplu ci man ëllëg yawma alqiyam ki may gën a jege ëllëg yawma alqiyam nee moy ki gëna rafet le jikko ci yéen ki gëna rafet le jikko ci yéen motax tax bokkon na ci ay ñaanam allahumma hdini li ahsani al axlaaqi laa yahdi li ahsaniha illa yow yàlla dal ma boo may ma jikko yu rafet ndax kenn du am jikko yu rafet yu dul yàq ko jox dan na ñaanit ni wasif anni sayi'aha la yasrif anni sayi'aha illa anta neena yàlla yow yàlla wë wëlbatil jikko yu ñaaw wëlis ma ndax kenn du wëlbati jikko yu ñaaw wëlis lu dul yow yaa koy def kon mbokk yi nañuy fexe ba rafetal am jikko yu rafet moo tax maam Seydil Xaaji Malik toujours ngeen dégg dégg ñu nettali ko ñaar yooyu laay tëjee moom Cheikh Abdou Aziz te Xaaji Malik dégg naa ba muy doog a ñëw Tiwaawan moom radiallahu anhu bi mu njëkkee jullee ayit jiite ayit am na mbokk yu dëkkoon ci dëkk ba am ku yore ndëndëm di wër dëkk ba di tëgg naan ku alaaji Malick jiite julli ku mu jiite ayit ku mu jiite tabaski amoo tabaski yàpp nga am léegi Seydi Xaaji mali yëg loolu bàyyi ba xaaju guddi mu ànd ak góor gi ëmat may Maodo mooy suñu bàyyi euh, Mansour Mbay baayam suñu maam ëmat Mbay Maodo nee na bàyyi ba guddi mu uut mbubbu caw leen boko misal misal ci jamono ji da nga naan mooy jesneer bi gëna cher ak ay teranga yu bari and ak gor gi amon bay mawdo ñew ba ci kër ga mu ni gor gi amon bay mawdo nuyol ba mu nuyo waji fay ko waaw ah, ba mu ko fayee sax dafa fogon ni fitna la indi si mu ni ko sama gor gi kat mo ñëwoon pour setti la neena mu ni ko na ñew fogon ni Seydil hajj malik fitna lay indi te hajj malik ni ko jox ko teranga yi ni ko dama bëggoon nga ñaanal ma yàlla ëllëg bu ma julleetee yàlla nangul ma ko comme que yow yàlla xamal na la julli mu nangu nee na góor gi ni yàgg ba mu yàgg ni ko baal ma dañ ma ko waxloo xoola xoola jëf jooju rek waaw waaw moo tax see xaj maayik ni wa bi xayrihi moom yonent bi wa bi xayrihi jalabal wara wali man ajaabu naylu xayri maran am na koo xam ne daka dafa takk fasam xare pour mu dugg ci lislaam waaye ñu ëpp ñu dugg ci lislaam jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jëflante bu rafet moo tax ñu ni ashhadu an la ilaha illa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bis moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk na ci am na garab boo xam ni ca la daan féexlu am benn yéefër boo xam ni boobu tuubagul xam ni yonent bi fii lay féexlu mu dem ba ci kaw garab bi yore jaasim yéeg di xaar yonent bi pour bu yonent bi tëddee ci keru garab gi rek di noppalu mu ñëw rek dóor ko jaasi ji mu yem fa benn yoon waaye xoolal li ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëflanteeg moom ba mu ñëwee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bàyyi ba yonent bi di dellu ndax yonent bi bët yaa daan gëm waaye mus sa nelaw yonent bi du nelaw bët yee gëm nag mu te mu wàccee ci garab gi rek ñëw tiim yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak jaaseem ni ko ndax tey kan mooy tere ma tàqali sa bopp ak sa baat ba sallallahu alayhi wasallam ne ko allah waa ji dafa tiit ba jaase ji rot yonent bi sallallahu alayhi wasallam jël jaase ji tiim ko ni ko tey kan mooy tax du ma tàqale sa bopp ak sa baat mu ni ko yow ku baax nga doomu ku baax nga mu ni ko jéggal naa la waa ji dox dox ba mu yàgg yëg ni mënatul la dem ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kon xusnul xuluq mu ngi noonu am jikko yu rafet léegi nit tooñ la nga mën a fayu jekk pour fayu waaye nga jéggal ko ngir jëmmi yàlla gisoo alaaji mansour ba muy dénk cheikh alxaaj abdul aziz lu mu ko dénk wa man أساء فصامحه وصل أبدا من قاطع هاتك بالقذف يرميك ومن أساء كيف كنيا والدمتي يا عبد العزيز فصامحه يقلكو وصل أبدا ديكو جوك بفاو من قاطع موخم كلي دوكلا هاتك كي وني سسطولا قاطع كي سيباري سيديغنتي ياو فخبل دي def lo xamni dafa bëgg seen digënté yam fi nee yow dé ko jox bil qazf fi yan miika nee fu mu tollu daf lay euh daf lay xass nee yow de rafetal jëm ci waa kon tabarakallahu moo tax Cheikh Abdul Aziz dégg na ci suñu sëriñ pap Sëñ Bay Abdul Aziz muy netali ni Cheikh Abdul Aziz amna ku ko mësa fekk ci salam lo xalat ci ñaawteef rek wax nako waaw loo xalaat ci ñaaw téef rek wax na ko waaye da déglu rek li ko Cheikh Abdul Aziz jëf ak moom suñ Babacar Si Abdul Aziz nee na kooku keroog sax xaw naa onk ndax neexul nag ñu tiim sa ju di ko wax safaan mu leer ni la lii ñu koy waxal dara amu ci nee na Cheikh Abdul ni ko suñ bay sil ni ko bul tontu de waaw tere ko mu tontu nee na keroog ajjuma la tombel ma Abdou keroog ba mu julli ji jumaa ut na puuso mbaar luy dund kër rek yàpp na ko ci nee na ba mu jullee jumaa ba pare comme que suñu bàyyi suñu bàyyi Sëriñ Abdul Aziz moo fekkee woon jataay ba nee na mu ànd ak moom nee na jamono yooyu sax mu jug dundam Cheikh Abdul Aziz basarum bi gisatul waaye basira bi nag doon na gis gis gisu basira basira mu ëpp doole gis gisu basaru mm-hmm. nee na keroog Cheikh ànd ak sëñ Mbay Babacar Si Abdul Aziz nee na naan chauffeur bi jàddal fi jàddal fii jàddal fii ba ci bun kër waa ji ko doon ŋàññi nee na mu ñu sëñ Babacar Si Abdul Aziz xam naa ni boo xamoon ni fii laay e, jëm doo ñëw de mu ni ko waxuma la ñëw sax waaye dina ma jaral sax ma bañ a julli si juma keroog mu dugg si ci kër gi di mocc waa ji di ko ñaan di ko ñaan ba waa ji nangu koo jéggal mu ni dama amatul kàttan waaye teraanga yi yow laa ko indil waaye maa ngi ñaan baabu sëñ Babacar Si Abdou Aziz mu ni ko teraanga yi nekk ci oto bi yëpp wàcce ko te bu ci kenn jàppale xoola fa façon boobu waaw façon jëfandikoo boobu kon ñun suñu ay kilifa noonu la ñu jëfandikoo moo tax yàlla yàlla defal ñu tawfiq ba defee waxtaan wi waroon na gën a yaatu ni waaye ñu delloo leen kàddu gi rek macha allah Ah, lu ci jub ñu xam ni ci buur yàlla la lu ci dëng ñu xam ni ci matadik doomu aadama yi macha allah sëñ Abdourahman macha mm-hmm. allah oustaz euh, mm-hmm. wax dëgg yàlla doyaluñu euh, euh, xam naa peut-être mm-hmm. comme ni nga ko waxee rek temps bi moo ñuy tënk waaye desewaat nañu quelques minutes incha allah xam naa ni daal ñu jéem a ubbi waxtaan bi rek bu fekkee ni am na ku ci bëgg def contribution wala ku ci am question boo bëgg laajte rek Ah, ubbi nañu micro bi mm. allah pour mm. ah, nga mun ko mm. posé oustaz daal di ci indi ay tontu rek waaw mm-hmm. waxtaan bi moom wax dëgg yàlla am na solo lool sax te booy xool ci tànk daal daanaka daanaka daanaka <laughs> li li waral ñaawteef yëpp mu ngi tàmbalee ci ci làmmiñ mu ngi tàmbalee ci làmmiñ daanaka moom moom moom mooy làmmiñ sonal ñëpp te te comme comme comme ni nga ko waxee rek ci ci sa début waxtaan mm. yaa ngi wax mm. ni dañoo dem ba léegi dañ ko commencé normaliser muy muy muy jëw dem ba commencé ko normaliser da dégg léegi ñu koy wutal sax naan naan naan kaay ñu kaa wala kaay ñu def li waaw daanaka def xamuñu ni ñi ngi def bàkkaar boo xam ne daanaka bàkkaar bu rëy la effectivement kaay ñu kaa bàkkaar la te maa ngi dégg am na eh, nga baal ma gisoo foofu nga baal ma. Mhm. aywa bisimilah bisimilah. waaw waaw yaa ngi dégg. ma ni euh, mooy xam nga damay faral di wax ni nga baal ma sax. Mhm. Mhm. waaw maa ngi lay dégg maa ngi dégg. Pape Sëñ Mbaye buy wax ni euh, euh, mooy sànq yaa ngi koy junj mooy bi nga naan déglu ki nga xam ne moom mooy toog di déglu jaw gi. nee na nee na kooku kenn gënu ko yées. ndax wax dëgg yàlla kii jëw bu amuloon ku koy déglu moom du du am fu mu jëwee. du jëw. koy bàyyi xel. du am ku mu jëw mm-hmm. Mm-hmm. du mm-hmm. moo tax euh, xam nga li nga wax léegi ci ci ci ci sénégalais yi xaw ma kaañu kaañu kaadi noonu nga ko waxee léegi. Euh, même émission yi am suñu suñu télévision yi. boo ko seetloo ak suñu rajo yi. yu ñu war a seetaat la. man damay faral di wax ni euh, lu bon kenn waru ko mais dañu war a fexe di fésal yu baax yi mm-hmm. ndax nit ñi war roy boo seetloo émission yi ñu yëglu yu am internet bi la moo xam mm-hmm. télévision bi la boo seetloo mooy émission cas yooyu mm-hmm. nga xam dañuy nettali nit ku def lu bon wala ku wax lu bon wala ku jëf-jëf ju bon te loolu nettali yiw nit ki xam xam xamee ci lu baax di ko roy moo gën nettali safaan mhm. boo seetloo si suñu turu émission yi damay bañ a tudd yenn émission yi mhm. waaye boo seetloo euh, yooyu rek lañu kii ñu kaa mhm. te yu jar a bàyyi xel la waaw yu bar a bàyyi xel la moo tax dafa am benn góor bu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ko dénk ma mun ko maa lay dénk ragal yàlla waaw ku bëgg ku ma ku kuy laaje na laaje rek ñu baal ma mm-hmm. nee na mu ni ko ragal yàlla fa innaha jimaau kulli xayr mu ni ko ragal yàlla moo dajale yiw yëpp mm-hmm. kon li li ma doon wax sànq mm-hmm. ni la jikko bu rafet dafa lënkaloog ragal yàlla mu ni ko wa alayka wa alayka al jihaadu fa innahu rahbaaniyatul muslimin mu ni ko maa lay dénk Jihad, ndax lolu rëhbaaniya moy at takhalli an ashfaali dunya Nena, euh yalla ngoy wax ci alquran wa rëhbaaniyatan ibtadauha nee moy euh wet summeeku ci soxla yi àdduna ak bayyi banexi ak deddu aduna ak beru ñooñ aduna nena na looloy نينا يننتي بني وعليك بذكر الله تعالى وتلاوة القرآن لما ينيو تي واحد رك نكو ماغ لاي دينك غاي تودو يالا دي جانغ القرآن فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء مونيكو جانغ القرآن لير لا نيال لا تي كاو تي سوف نينا دنج تودو لا تي اسمان نينا بوي جانغ القرآن لير لا بو خام دنج ام في تي كاو سوف في تي سوف نينا دنج لاي تودو تي اسمان منك وحظ لسانك إلا من خير فإنك بذلك تغلب الشيطان نانا منك نانا واتو سلام من نغا واتو سلام من لدول يو نينا فإنك بذلك تغلب الشيطان نانا واتو جيجي واتو سلام من جيجي نوتي شيطان متخ قال الفقيه رضي الله عنه نانا معنى قوله عليه الصلاة والسلام عليك بتقوى الله تعالى دكوي فيري nee na maanaa waxu yonent bi mu wax sallallaahu alayhi wa sallam ni maa ngi lay dénk ragal yàlla nee na mooy an yajtaniba amma nahahu anhu nee lépp lu yàlla tere nga sori ko wa yaamalu bi amara allahu taala bii lépp lu yàlla digal loo ci mën nga def ko ndax yàlla dana ci alquran fattaqullah xaq fattaqullaha xaqatu wattaqullaha xaqa tuqati yàlla nee na ngeen ma ragal dëgg-dëgg ragal keroog aaya boobu mu wàccee saxaaba yi ñëpp a waaye li war li ba ñu nasaxale aaya bi ci fattaqullaha masataatum saxaaba yi ñëpp tabaarakallahu dalalaat seen xel moo tax alaaj maasud dani xaqu tuqaati nasibun laysa yudraku illa bi machiati laa bi laa bi baabi itqaani nee na dëgg-dëgg ragal yàlla nee na cër la bu yàlla di defal nit du buntu buñ koy xereñee boo xam da nga ciy jaar pour am ko waaye nee na fattaqullaha masataatum sa kem kartan li nga mën ci ragal yàlla nga def ko kooku moom jullit bu ne war na ko jéem moo tax fa taqu wallahi an yajtarima an amma nahahu anhu mooy nga sori lépp lo xamni yàlla tere na lako ko wa yaamal bi amara allah taala bi lépp lo xamni yàlla digal na lako muni nga fa idha faala dhalika faqad jamaa jamia al xayr nee na boo defee loolu nga mbolim yiw yiw yi mu wa qawluhu alayhi salatu wasalaam nee na wax ji yonenti bi wax ni wahzin lisanaka moo ne yaani ixfad lisaanaka illa min xayrin mu ni li ci yonent bi yam namm mooy na nga wattu sa làmmiñ di ci wax lu dul yiw kon kaañu kaa dëgg-dëgg niñ ko waray kaawee mooy fexe ba dajaloo waxtaane lu mel ni zawiye boobu sëñ Sidi Ahmed si bëgg a taxawal ngeen toog waxtaane ko maa ngi dénkaat nit ñi nag surtout ñi dëkkee foofu ñu am ci taxawaay ba ci ñi nekk fii ci réew mi ndax buur yàlla subhaanahu wa taala wala yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam dani man bana baytan ban man man bana masjidan bana allaahu baytan fil janna nee na képp ku tabax jàkka képp ku tabax jàkka yàlla tabaxal la néeg ca aljanna kon nañu fexe ba yitte jooju sëriñ bi dafa ànd koog yéen mais ñu fexe ba suñu alal bu mu ko fekkee nañu fexe ba kër wi néegu yàlla bi na dàq suñu kër yi bu fekkee yàlla la gënal sa bopp dëgg-dëgg sa alal te yàlla ku ko lebal dëgg-dëgg bu lay fay nga kontan li wolof naan yàlla moom boo ko lebalee ker moom guddi la lay fay kon bu ko defee loolu maa ngi profito di leen digal ni nañ koy bàyyi xel fexe lu ñu mën rek ndax maa ngi dégg eh, sang bi di ko wax keroog euh, suñ pap mbay macha allah yal na yàlla mottali koog jàmm ndax maamam kat lu yooyu la fi bay ñooy ay ndonom mooy daara ak ay zawiya kon macha allah euh, sëriñ si rahmet ñu ngi lay ñaanal yàlla yal na yàlla taxawu na ba liñ ci bëgg yàlla defal la ko ak ñi ko àndal ñëpp nag kon <clears throat> ka yooyu euh, bu ci bëggee mucc mooy fexe ba xëy na ñu koy kaa ci lépp loo xam ni dañuy dolli ragal yàlla lépp loo xam ni dina defaru ak mbokk lépp loo xam ni doon waaye di toog naan kaañukaa di wax ci deru nit wala même bu dee dëgg la sax mhm. sëñ Abdourahman mhm. même bu dee dëgg la mhm. nit ki donte dëgg ngay wax li ngay wax dëgg la ci moom waaye bam koy def amaan na mi ngi la koy nëbb waaye dëgg-dëgg bàyyi yàlla léegi-léegi sax nit def bakkar nga top ci di wax fekk mom bam ko defé le wét jéggalu ko bur yàlla subhanahu wa taala yow nga top ci di wax ba ay safanam yep yaay mujj diko ko lol nak yàlla ci yàlla bolé musal moo motax wax di lisaanaka moom ni ko firé moy ihfad lisanaka illa min xayrin moy na nga wattu salam ñu luddul yiw fo fekk yiw nak waxna naa la sallallaahu alayhi wa sallam ba muy dénk dekané sank nee moy khudil xudil afwa wa'mur bil urfi yek mom fo tollu rek dee ko wax نعم. حديث 101 آه، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت من لو او ليصمت دو تياغين وخال يو ولا غنوب موي وخال يو بوبالي تي يو غنوب اب جوليت يو رك لا ورا واخ تي يو رك لا ور دي وخانتي سوني اي كليفا نون لا ندان وخانتي اسكو موس نان سوني اي كليفا دي وخانتي سافان ديدت يو رك لا ني وخانتي كون نيت سا كليفا غا دنج كوي روي نيت داي روي كليفا تبارك الله عبد الرحمن Mm-hmm. balma ma de Mang lay <laughs> ya, dof dede mom kay abdourahim mm. waaw soxna xadi waaw uh, mang di nuyu di nuyu oustaz oustaz abdoul aziz uh, vraiment waxtan bi mm-hmm. amna solo lol lol lol lol lol te rek def ñuy si si ñu xolaat suñu taxaway ak naka la ñuy ak suñu mbokk ak manam julit ak julit mm. parce que comme nung ko waxé euh um, dama dégg gor gu bax mu ne sooy jaamu sooy jaamu yàlla danga koy danga koy jaamu si doomu aadama yi te jamono buñ toll nii nit ñi dañ lay tooñ dañ lay tooñ wax loo xam ni amul te des fois dañuy sos jël sos boobu def ko maanaam normaliser ko daal te nit ñi hmm. dañuy sawar di dégg yooyu parce que tout le temps da ngay gis ni am na ñoo xam ne comme li nga wax rek booy déglu da ngay déglu loo xam ne dina la jëriñ dina la jëmloo kanam ndax man tey su ma ñëwoon fekk sëñ abdourahim ma taxaw rek pour yàq sëñ abdourahim mu jaral ma lu ne lan laa ciy am lan su ma ko defee su ma weeree ñëpp après lan lan nga siy am lan nga siy jëlee lan mooy end game bi maanaam boo ko def pare après loo siy loo siy jëlee ba pare dañuy ñëw normaliser ko xam nga di wax dëggal ko te daf lay wóor ni ñu ngi tooñ parce que dama ko gis moo tax ma koy ma koy wax te dafa nekk loo xam ni dafa metti parce que da ngay xam ni lépp lu ñuy wax fekk gor gu toog def lu baax pour askanam sonn def alalam def coonam def léppam nga gis ku jógee fële ñëw rek pour xeex ko mm-hmm. xam nga nga gis ni ah, mm-hmm. man li may wax man dëgg-dëgg sama jàng sama jàng soriwul mais man dama ragal tooñ lan la yàlla wax si nit koo xam ni dafa pare pour toroxal gor lan la si yàlla wax tooñ tooñ lan la si yàlla wax euh, oustaz jërëjëf mm-hmm, tooñ mm-hmm. macha allah euh, soxna si macha allah ma ni wax nga lu am solo nit ki yàqu deru nit wallaay amu ci dara lu dul la ci góobee ay bakkaar xam nga sal wasallam dani fa inna zulma zulumaatun yowmal qiyaama nee na tooñ ay lëndëm la ëllëg yowmal qiyaama tooñ tooñ tooñ sa mbokk waxuma sa mbokkum jullit de même pudul jullit sax waroo ko tooñ saaloo sallam dani na nga euh, ñaanu ko ñu tooñ mm-hmm. daawatul mazlum dafa am ay tooñ yoo xam ne euh, ay ñaan yoo xam ne daawatu mustajab la bokk na ci ñaan yoo xam ni boo ko ñaanee donte la ab ate bi bu gëmul yàlla ab ate Mm-hmm. boo ko tooñee mu wéet ñaan yàlla yàlla day nangu tooñ googu mm-hmm. même ab ate mani nga xam ni gëmul yàlla même boo ko tooñee bu wéetee ñaan yàlla bu wéetee ñaan yàlla yàlla da koy defal loolu mu bëgg moo tax sallallaahu alayhi wa sallam ni ittaqi daawatal madlum nee na na nga wat nanga sori na wattandiku ñaanu ku ñu tooñ ndax fa innaha nee na ñaanam googu mustajabatun lu ñuy nangul kon tooñ nit ki du ci amee ndam mukk mukk tooñ baaxul moo tax sallallahu alayhi wa sallam ni az zulmu zulumaatun yawmal qiyaama nee na tooñ ay lëndëm lëndëm lëndëm lëndëm la ëllëg yawmal qiyaama kon ab julit bu ne war na moytu tooñ waaw ab julit du tooñ jullit du tooñ macha allah. Hmm. macha allah soxna Xadi ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci question bi. jërëjëf oustaz jërëjëf. soxna Fatou dafa mel ni dafa bëgg def contribution moom a ah, asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. asalaamaaleykum wa rahmatulah. maa ngi gërëm sëriñ bi torop di jël nuyoo bi teg ko ci suñu loxo sëriñ Ahmed ak soxnaam ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci team bi di def programmes yu mel nii. Hmm. sëriñ bi wax nga yépp dafa des ñun doomi aadama yi. Hmm. saa nekk ñu ngi déglu xutba yi suñ demee juma ñu ngi déglu mel ni suñ itfa bi leen ni rajo bi leen ni boroom xam yaa ngi ñëw di joxe dafa des ndax ñun taalibe seex lañ ndax duñ taalibe seex because taalibe seex du sanse rek tee sa kurus nga ne seex nga wax nga ko jikko ji jikko ji macha allah suñ sëriñ bi def na ko waaral nañu ko indil nañu nit yaa ngi ne yaa ngi koy waxati man dama defe ne ñiy dégg waxin ba pare duñ def li wax bi li ragaluñ yàlla naa ko waxee noonu ragaluñ yàlla because bu fekkee ne ragal nañ yàlla li nga wax fi rëy na mm-hmm. tooñ baakaar nga cey am jowaate mm-hmm. bàkkaar nga cey am ngay déglu mm-hmm. jowaate bàkkaar nga cey am a ah, mm-hmm. am na yenn groupe yoo am ne loo yoo xam ne loolu rek lañ nekkee loolu rek lañ nekkee jël wax ni ko soxna si waxee sos ko defar ko bi nga xam ne dafa mel ni lu déggu la wax nga ci léegi ñuy def loolu dañ ragal yàlla ndax ragaluñ yàlla ragaluñ yàlla hmm. waaye lu waay def hmm. nga góobe ko kuy déglu waarekat yi kuy jàng alxuraan bi hmm. te toppuloo li yàlla wax mu ngi mel ni you are you are defaring Allah yaa ngi weddi yàlla yàlla ne ñu bàyyi jow boo jowee lii nga cee am nga bañ nga di ko def yàlla ne bu leen déglu jow boo dégloo jow lii nga cee am nga bañ di ko def yaa ngi weddi yàlla hmm. kon yow di nga ooyee sa bopp jullit ndax di nga ooyee sa bopp eh, eh, eh, tijaan taalibe cheikh de jikko ji de boo ooyee sa bopp taalibe jikko la kon dama ne jërëjëf ci waxtaan bi may ñaaxaat suñ mbokki tijaan yi nañ góorgóorlu ji roy ci ñi nga xam ne ñoo samp tarixa bi nañ roy ci ñoom te ñu ragal yàlla yépp a ngi clair mu ngi ci bug si laxdari bi bi nga ne laxdari rek ma laaj suma borom kër mu dem google ñu gis foofu la anything li nga bëgg ci diina bi dinga ko am ñu gis laxdari bi you can download it mun nga koo download nga read waxi yàlla la li nga xam ne hmm. oh non amon na baji Mr baji mi nek xawma ndax Texas na ndax fan la waxon na ma ni fi lakh dara bi hmm. yow nga ñew nga wax ko lolu hmm. da fay gëna tax sax ma gëna bi ma ko suma hmm. wax you can download it amon legi man dama koy download te suma moro bi bari mu ñu ko download ma ngi leen wax su ngeen demé google you can get it there right the word laxtari nga gis mu bind ko dina la ko complete nga nga nga gis ko hmm. nga download ngeen jang ngeen xam seen diine hmm. dee bi bi dafa gaaw way way way way way bammel dafa xat hmm. yo yaay yaatal sa bammel yo def di nur of allah mu fess sa bammel leer fess sa bammel ya koy liggey jannatu firdaw ya koy liggey nañ leen gor sëriñ baa ngee def lum mun di isi borom xam-xam yi ñuy toog di ñu jàngal leen ragal yalla jërëjëf mm-hmm. sëriñ bi jërëjëf sëriñ bi mm-hmm. yal na la yàlla guddal sa nga yàgg dañu di waare waare yi lene ñuy gërëm sëriñ groupe yal na fi yàgg yal na fi yàgg yàlla may ko wér ak wér le jërëjëf mm-hmm. waay jërëjëf trop macha allah macha allah macha allah tabarakallah allah ni ko moom de duggam am na solo waay solo lool kay macha allah. am na solo am na solo macha allah. ndax dari bi muy wax de daanaka damay dégg eh, mag ñi dañuy wax ni de de mos naay dégg ci Oustaz Alioune Sall day wax ni mag ñi dañ ko daan woowee làq jariñu. làq jariñu effectivement. téere téere bu tuuti la ci ci ci ci ci ko ci ci niñ koy waxatee ci. maanaam ci gis-gis waaye li ci nekk daal moom daanaka. ay njëriñ ay njëriñ moom. دعنا دعنا سني مام شيخ عبد العزيز دعنا واحد ترجمان الأخضري ما يلقط دلائل أول ما يجيبه بوا يحرم عليه الكذب بموجه أبان جاي أغلتي فصل في الطهارة نحن لولو كوكوجي في ديواني هم جاي مدون وحي بويسير لولو خاونا كوريزمة خاونا كوريزمة آه، في مكلف بي kàllaf bi. Mhm. dañ ko jàngal ni mu wax wax ju ñaw bu mu wax wax ju bon bu mu ngiñ ngiñal passé ngiñal passé masalan sa benn mbokk am soxna lu ko def nga ni bu man la loolu sax sa yaa daf la koy tere mhm. ak ñi jullit mhm. waaw xas jullit daal masalan ab jullit kenn du ko xas kenn du ragal ab jullit nee na loolu lépp nag lu dul ci atte ci lu ci nga teg ko ci sharia ko xamni ni day xotti xormay l'islam bi xeyna lolu waye ab julit dal ci deug deug kenn du ko ngagn kenn du ko lo kenn du ko tiital waaw yoy yep daf la koy jangal nan la del mat way moytu sa ay cieur de ci def lepp lo xamni yalla yàlla nako mhm. dem ba mu yag nan la boy bëgg bëggal ngir yalla boy bañ même nit ko mhm. bëgg ko ngir yalla bo bëggee seen and ndex bëgg ko ngir yàlla boo bëggee cofeel gi sax bëgg ko ngir yàlla nee na koy bañit bu ko bañ nit warul bañ mbokkum nitam mm-hmm. waaye danga koy bañ ngir yàlla aman na bëggul yàlla mi la bind nga bañee ko loolu waaye nit du bañ nit en tant que nit nee na looy booy booy ab jullit war na régler boppam ba buy kontaan na yàlla tax mm-hmm. mooy buy gërëm na yàlla tax mm-hmm. ñun boo xew seetloo suñu xew-xew yi suñu gërëm yi léegi-léegi yàlla du ko lal da ngay gis sax euh, nit di tàgg nit tàgg gi muy tàgg nit mi ngi ciy gaaral keneen mm-hmm. Ah. Mm-hmm. kon loolu yàlla taxatul wax moom bu ci leble euh, bu ci fayeeku bor bu ci leble waaw ah, da wax rek ngir jëm yàlla koy mere it na ko mere ngir yàlla nee na del digle lu baax del tere lu bon foog naa tarjumaan di noonu la ko indee mm. mu dem ba mu yàgg ni xaram na ci ab jullit muy fen muy jëw muy rambaaje ah muy mu muy muy yëg boppam waaw di ngistal waaw di ngistal nee na dañ koy sax tere ab jullit di di di ku gis foog bi gën a garaaw nag ci léegi mooy ko gis foog ni yaa gën waaw léegi-léegi daf ñuy dal léegi-léegi xamoo ni mutasawifuuna yi dañuy faral di wax ni man zanna annahu xayrun min al kalbi fal kalbu xayrun minhu nee na nit ki ñoom dañu defaru nit ku defaru pire noonu ngay mel nee na nit bu foogee ni sax moo gën a gën xaj nee na xaj ba xaj ba moo la gën foog na sëñ Hadi Touré ngi koy way saa boo njorte njortee ni xaj ba gën nga ko bo xaj xaj ba gën na la ëllu tasawuf ñëpp a wax lool xoolal nitu yàlla yi ñoom dañu dañu naan xaj bi yàlla la ñuy xool ci moom gisoo yonti yàlla noox آه، دينغ سوني مام شال حبد عزيز ديكو نتالي نانا يشكر لا تودون يشكر وعلي تحني تودي كو نوح ام نيوني دافا رومب بن خاج نانا خاج بي دي با تبارك الله آه، اي خام دي فاج نانا تي خيل مي لا واخ امنا نيوني تي خيل مي لا واخ دي ني وا خاج بي موم خاوكو خاوكو خاوكو ngagne ci waxine waye xel mi lamine bi sax waxuko ndax nee na yàlla waxloo xaj bi ni ko bu ma bindoon sama bopp du ma mel nii nee na yont yàlla nuux di ko jooy di ko jooy ba ñu koy woowee nuux mooy kii kii jooy ba yëkkat ñu koy woowee loolu xoola loolu ñun nag dañuy gisante suñu biir dañuy foogoon da gis koo xam ni foog nga ni yow maa am alal rek maa ko gën te ñun loolu la dundee suñu société bi euh, li may faral di wax ni Sénégal moom Eh, lo rafet rafet jikko ba ci suñu jotaay yi sax da ngay gis borom jikko bu rafet mais kenn du ko tudd waaye borom alal boo xam ne donte la rafetul jikko kuy wax moom lay tudd naan ak a baax ak a baax loolu nag war nañ ci xoolaat suñu suñu suñu suñu suñu bopp waaw yàlla li li li ko soxlaal ci nit buy sangu du ko summi te mooy jikko borom jikko ju rafet kookoy nit ku baax waaye loo mën am amal ay château amal oto yu kenn amal ay kër yi dàq yu kenn amul ak loo mën a am te amoo jikko bu rafet doo ko gën ndax wax naa la sànq ni la jikko bu rafet ak ragal yàlla dañ leen a lënkale dañ leen a lënkale kon tabaarakallaahu noonu la ko toppee euh, euh, moom borom Laxdari moo tax Cheikh Abdou Aziz daan wax ni euh, tarjumaanu Laxdari ku koy jëf rek di nitu yàlla allah te booy xool jikko yi nga xam ni mooy ay ay ay ay axlaax mazmuma mooy jikko yi nga xam dañ ko ŋàññi yooyu la lay la lay tere ba pare di la digal naan la ab jullit nangam nii la oramel a na na mel nii na moytu nii waaw nay digle lu baax nay tere lu bon waaye xaram na ci moom kon gisoo dafa xaram lu mel ni fen dafa xaram ci jullit ndax sallallahu alayhi wa sallam nee na al muminu laa yakdib ndax fen li tax mu garaaw mooy li yàlla dogal nga ni lolu amul lolu fen ci xet weddi yàlla yi la bok ndax yàlla dani masalan euh yàlla dogal euh ni li mo am dogal ko ci yow masalan ñu wo la téléphone li waji don netali dafa am ko xamni dafa don wo ben xaritam euh woowee ko ci fixam ene na ko woowee ci fixam ni ko diw fo nek mu ni ko dama génn mu ni ko moo sa fixé laa lay woowee mu ni ko baal ma tàmmu fen rek xoolal loolu rek yal ci yàlla boole musal waaye dafa am ñoo xam ne dafa dem dañu dem ba ba dañ ko woyofal te hmm. yonent bi nee na ab jullit du fen moo tax ñu ni nitu yàlla lu ne mën na ko def ba mu des fen hmm. ndax fen dafa mel ni da nga weddi dëgguk yàlla gi li yàlla yàlla def loolu nga wedd moo tax laxdar yi li nga wax léegi Oustaz Alioune Sall yàlla na ko yàlla euh, fay naan laxdar yi mag yi daan nañ ko wooye làq jëriñu effectivement même boo ko toppoon naa bu ci suñu sëñ sëñ sëñ si Ahmed xam naa dina ci ñëw ak wala yeneen asatise yi fa nekk même Laxdari yi ci nekk ci ay sew-sew ci wàllu julli euh, tabaarakallaahu doy na waar moo tax ñu tuddee ko làq jariñu ko ko làq rek jariñu dégg naa maam sëriñ Babacar si baabu sëwi ci Laxdari mhm. daawul julli lu dul da koo nafar ba pare macha allah kon soxna soosu euh, contribution am am na solo yal na yàlla fa yiw amiin amiin macha allah amiin amiin amiin contribution bi kay am na solo lool sax te comme li ngay wax léegi rek daanaka oyofal gi ñu oyofal maanaam wax lu dul dëgg dafa dafa doy waar parce que Pape Sëñ Mbay day wax ni Pape Sëñ Mbay Abdou day wax ni ki dàq fen ngeen jégal ma ci kàddu gi mooy ki nga xam ni li muy wax sax dëgg la waaye la wax yoonam nekku ci. waaye kenn laaj ko ko. masa masa wax li nga xam ni moom ay sos la daanaka. moom koy moom xam naa ne daal da xoolaat xoolaat repères rek xoolaat référence yi xoolaat suñu bopp nafaraat suñu bopp li nga xam ni moom daal la jël ni jàpp ni ñun moom lañu ñoom la ñuy roy ñu roy leen ci hmm. li nga xam ni ñoom looloo taxoon ñu ñu mën leen ñu mën leen tuddee ay royukaay muy jikko makaarimal axlaaq Mm. Eh, parce que boy xol yeen yalla ci jikko rek la ko tagge wu ko ci tagge wu ko ci ci ci ci mën solo tagge wu ko ci santé ci jikko la ko taggee donc mm. donc ñun li ñuy jël comme référence nañ ko nañ ko xoolaat ñun ño wara nafarat suñu bop mm. comme ni ko Pape señ Bay Mansour di waxe ni kenn ku ne war ko toogaat ci sa roq man la kan roq man kan toogaat man kan bu ko defé chaque jour bu guddi joté nga nafarat nga xool ni journée bi yëpp lan laa fi def lu neex yàlla lan laa fi def lu naqar yàlla lan laa fi def loo xam ni waruma ko def sama mbokkum jullit bu ko defee yooyu boo koy def dina tax di nga mën a xam sa temps ndax euh, sa journée ndax lu productif la wala déet euh, xam naa ne daal. buñ ko xam nga xam nga doguma la foofu xam nga li boutiquier yi di def muy évaluation. inventaire. Euh, inventaire waaw. xam nga da jaay ba at mi delsi dañuy inventaire waaye ab julit jullit euh, dafa war bis mu nekk muy inventaire boppam wala ngaa tëdd mm-hmm. loolu la yonent bi jàngale mm-hmm. euh, wala ngaa tëdd nga xool ci bis bi li nga def ci lu baax nga santee ko yàlla nag xam ni du yow toujours damay faral wax ne gisoo jaam bi lépp looy def bu dee lu baax la santee ko yàlla xam ni yàllaa ko def ndax bu de lu baax loo joxe loo wax ci sa làmmi yàllaa la may waxukaay kon santee ko yàlla bu dee alal joo al sa alal nga def ci lu baax bu dee liggéey mayewul alal sabab la sabab la pour am alal moo tax doo toog rek ni duma liggéey da ngay sabablu waaye am na ku la liggéey te li nga am amuko ko bu dee am jàng la moo la may liggéey am na ku la dàq kon loolu sabab la moo tax sëñ babaka sini sabab lu leen te bu leen sukkandikoo yëngu man kaana zahir fatin fal yuxyiha abadan mo gën sàggan dem di tuumal yàlla ak dëkk ya waxuñu la rek nga toog waaye nit ki lépp loo def ci lu baax sante ko yàlla xam ni la ci dimbali waaye nit ki nag na tuum bu dee bon nag na ko tuumaal boppam xam ni kat moom yàlla defal na ko mu mën a def lu baax waaye ci sàgganteem ci la defee lu bon nga tuub ko bala ngaa tëdd tuub ko sa digganteeg sa borom nit ki ci yoon warul tëddaale bàkkaar xëy na sàggantee ñuy dal waaye bala ngaa tëdd war nga def am sa dogu istigfaar jéggalu sa borom bala ngaa tëdd jéggalu yàlla ni yàlla ëllëg kat incha allahu maa ngi lay ñaan nga dimbali ma ba lii ma defoon ci loo gërëmul ëllëg mu bañ ma dal moo tax alaaji Mansour ni waxaasibin nafsa fi dunya muxaasaba xadisu wala yonent bi la way gisoo way mag ñi seen way yi toujours dama koy wax ci Seydi El Hadji dama naan la Maodo mustawa day nettali waxu yonent bi waxu waxu buur yàlla subhanahu wa taala Maodo day nettali sallallahu alayhi حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا صلى وسلم نينا نين رجل سين بوب لو جيتو يالا دي لين رجل لول لا يونتي صلى وسلم واخ الاج مصورني وحاسب النفس نغا رجل سا بوبان سا بوب نغا رجل سا بوب في الدنيا في تي ادنا نا انفانت نيت كي نافخ با انفانتير بوبام في الدنيا في تي ادنا محاسبه اك رجل قبل القيامه دي جيتو ngay dem ëllëg bisub taxawaay ba nee na boo ko defee fii ci àdduna tarbax da nga bénéficié wu da nga tonowu da nga am bénéfice waaw duuna xusraani nee na di nga am bénéfice wëris ngay perte moo tax li nga wax léegi moom lay dëggal mooy nit ki nay inventaire boppam nay xisaab boppam waaw nay xisaab boppam li passé ngay Mansour wax da koy nettal léegi nit ki nay dugg ruq mën a kanam Ah, waaw pour ku mën kanam waaye sallallahu alayhi wa sallam nee na bari na ku dugg safara ngóobitul làmmiñam moo ko fa dugal mm, mm, mm. inventaire yi ñoom bu ci gën mooy fexe sa waxukaay nga nga koy saytu gisoo yàlla ni mu bindee gémmiñ làmmiñ dafa jël ay bëñ bapare pare jël tuñ mooy bala ngaa génne wax xalaat ko wax nañu bala ngaa génne wax xalaat ko lu mat quarante fois bala nga koo ndax léegi accident ci wax léegi-léegi mhm. nga dundu jamono bu yàgg xamee wuñ la lu dul mbaax nga xëy wax benn wax boo xam ni lépp loo defoon ci lu baax dina ko màbbal mhm. moo tax wax li mu mën a yàq wax ju bon balu fital sax mënu ko yàqee noonu mhm. moo tax dañuy régler suñuy suñu bopp surtout ci waxukaay yi léegi li gën a mooy ñun suñu réew yi ñi ko jiite xoola rek sang bi sëñ Abdourahim rek ñi jiite suñu réew yi xasante sulli wante ay mbóot yaa ngi gëstu lu bon ci moom mais réew moom ñu bëgg mu avancé ah réew moomu ñu bëgg ñu avancé est-ce que mën na nekk waaw te sallallahu alayhi wa sallam nee na ci xadis ni ngeen mel mel njiit loo leen am noonu lay mel ku ñu mm. mën a indi am ci moom yaakaar ni moo gën buñ ko indee ci réew mi te ñun defaruñu bu dikkee mm-hmm. eh, du dox problème bi lay doon mais bu ñu dundoon nekk nekk ci jàmm di waxante lu baax di waxante lu rafet yéenante jàmm xam nga ni ab julit même ba ci xolam même doo wax sa mbokkum jullit da ko yéene jàmm ci sa xol xol da ko yéene jàmm xam nga yonent bi maa ngi la doon wax sànq daawatul mazlum soxna si doon laaj sànq tooñ mm-hmm. man daawatu daawatu mustajab mustajaba mm-hmm. ñaan yi nga xam ne yàlla da koy nangu bokk na ci benn ñaan sallallaahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne da nga ñaanal sa mbokkum jullit mm-hmm. damay faral di wax ni sax ñi may fréquenté man leen ku ci am benn ajo seetal sa mbokku jullit boo xam ne am na aajo boo mel wala am na aajo nga wéet bu la neexee nga bàyyi ba xaaju guddi nga jàpp julli sa ñaari bul tudd sax sa bopp ni yàlla diw kat sama waa jooju doomu diw dama bëgg aajoom boobu nga fajal ko ko ci sa mbaax ci sa tedd nga ci sa daraja yonent bi saalu daraja yonent saalu sallam gisoo saalu sallam nee na booy ñaanal sa mbokkum jullit addu'a bi zahril ghaib la ko tuddee addu'a bi zahril ghaib waxuma la nag di ko ñaan xëy naan ko ñaanal naa la wala tey ci yow laay fanaan déedéet bu mu yëg bu mu tiin nga ñaanal ko yàlla nee na am na malaaka mu taxaw boo xam ni yaa ngi ñaan mi ngi lay tontu yaa ko dul dégg mi ngi naan la wala bi misli yow it di nga am lu ni moo tax ma ne ku bëgg sa faju seetal sa mbokkum boo xam ni dafa am ay ajo nga koy ñaanal yàlla bu yàlla di faj ajo di fajaari sa aajo kon loo ciy déggee loolu yonent bi di ko jàngale mooy dañu war a yéeneente jàmm waaw mm. ah, dañu war a yéeneente jàmm ci xool waxuma laa nag xol yi léegi dañoo ëmb safaan yamatuñ ci dañ ko génne ci làmmiñ yi suñu njiit yi waxante lu bon ba politique lu xaram mais toujours damay faral di wax ni politique bu Sénégal bi ku koy defee nii ko sénégalais di defee dafa xaram ndax xas gor nañ ma baal léegi yenn politiciens yi da ngay dégg sax bu ñu waxee ñu ngi wax waxi waxi politicien la loolu nag ñoo ko jëmbat ci ñun ba mu sax ba am benn mbokk bu ma dégg muy nettali nee na ay politiciens ñoo doon tukki daf choc euh, nee na am ku ni kii ñii de ñëpp faatu nañ nañ leen gas nañu gas rek suul leen xam naa day tooñ du ñëpp nag am na ci ñu sérieux nag dëgg dëgg nag am na ci ñu sérieux am na ci ñu sérieux man am na ci ñu moo ci xam ñu sérieux mais sénégalais yi en général ñu sérieux ñooñu euh, duñ leen bàyyi xel mm-hmm. waaw duñ leen bàyyi xel mais am na ci ñu sérieux nag mais ñi sérieux duñ leen bàyyi xel nee bañ leen sul am ku ci wax ci ben politicien ni ah li de waxu ki kii de kii nan faatuwul ah waxu politicien rek kesam sul lolu ci lolu lolu jangat la bo xamni war nañ ci bayyi xel motax suñu politiciens yi war nañ bayyi xel lolu waaw bul digee lo narul sa làmmiñ fexe ba fekk do ci wax lo narul dégg na mam cheikh euh, mam cheikh mbàkke dégg na dan na wax ni loo wax def ko yàlla rek yàlla rek ko mën waaye lu du ma wax lu ma naru waaye ñun suñu politiciens yi surtout jamonoy élection da ngay gis dañuy dikk di la wax lañ lay wax billahi bu ñu faloo fàtte nañ ko loolu nag yaa ci yàlla musal waaw li ma taquluna ma la tafalun kabura maqtan inda allahi an taqulu ma la tafalun loolu la yàlla wax nee na lu tax ngay wax loo dul def nee na bokk na kabura màgg na maqtan ak sànji inda allahi ca yàlla di wax loo def kabura maqtan inda allahi an taqulu ma la tafalun waaye malheureusement ñun dañuy wax luñ jul def bi xas gor di même même xoola xoola nga baal ma sëñ Abdourahim maa ngi lay dog de déedéet bismillah demal demal demal xoola <laughs> ci wàllu xoola suñu wàllu sharia bi xoola eh, nit koo xam ni da doon njaaloo dañ ma baal ci waxin bi mhm. eh, ñetti nit wala yow sax gis nga ko gis nga ko muy njaaloo nga génn wax ko génn wax ko charia dani nañ la dóor quatre vingt coups xam nga tax da ngaa xas góor nañ la dóor quatre vingt coups ndax da ngaa xas góor kon yaa loolu nga ci yëgee nit di njaaloo charia li mu fi ñuy dóoree nit ku njaaloo bu ko waxul lu mu avier ko fi ñuy dóoree nit ku njaaloo mooy day taxaw ni man kat dama doon jaaloo mhm. bu fekkee dafa taxaw wax ko nag bu fekkoon dañ fa ñu fu ñuy dañ lay dóor quatre-vingts coups waaye ñun nag àtte wowuñ ko ñun pays layit layit la ñu xaw ma day na waar daal waaye nañu fexe ba nañ ko àtte suñu bopp mhm. nañ ko àtte suñu bopp ab jullit sax bu ko loolu dalee jullit jullit la te bàkkaar jaama koy def boo defee bàkkaar dawal dellu ci sa borom tuub ko yàlla nee na eh, damay nangu tuubu jaam bu ñëw jublu ci man di ma jégul xoola pour ma nettali léegi-léegi ñun ñuy jaf loo xam dama liir ci benn téere bu tudd mu kaashafatul xulóob hmm. muy nettali ni ci yoon yoon maa ngi ñëw fi ma tolloon hmm. ci jamono yonent yàlla Muusa dafa am benn jigéen bu Muusa mooy boromam ba mu njaaloowee yàlla dogal ci doom sosu ci ba ci doom sosoo mu rey doom ji mais ba fa rey xale bi rek tiit tiit di jooy jooy yu metti di jooy naan na ko yàlla jégal ñëw ba ci yent yàlla Moussa ni ko dama bëgg nga ñaanal ma sa borom mu jégal ma di jooy yonent yàlla Moussa ni ko ban bàkkaar nga def mu ni ko man kat dama njaaloo waaye ba ma njaaloowee yamuma ci dem yàlla dafa ñu dafa ci dogal doom ma ray ko ma ray ko nee na yent yàlla Moussa ni ko yii yow li nga def garaaw dàq ni ko génnal fii bala ngaa indi safara sama sama kër sa ay wi moom rëy na nee na dàq ji nee yàlla yebal Jibril ni ko demal ni ko moo ne am na am na lu gën a màgg ci bàkkaar lu ndaw si def nee na mu lu ko gën a màgg lan la mu ni ko ku dul julli te tey ko ñàkk hmm. julli te tey ko moo gën garaaw hmm. ñàkk julli te tey ko te loolu bu la dalee da ngay sa borom rek waxuma laak nag bàkkaaru njaalo kon yàlla li may bëgg a wax mooy yàlla bëgg na ko suturaal jaamam hmm. xoola ñeenti nit ñeenti nit pour sariya dóor la Mm-hmm. ñeenti nit ñooy ñëw ni fekk nañ ko muy njaalo mm-hmm. mais bu ko ñetti nit gisee ñu génn wax ko sharia dafay dóor ku nekk quatre-vingts coups mm-hmm. mais malheureusement ñun suñu réew malheureusement léegi safaan rek lañuy wax da ngay sax mujj tuut euh, tiit da nga naan euh, mujj jamono lañ nekk da ngay tiit ah, waaw waaw tiit da ngay waaw da ngay waaw li am Sénégal man jàpp naa ni amul fenn nag oustaz ko fii laa nekk am na benn question de balaa ñuy euh, balaa ñuy tàggatoo dama dama déggoon sànq si sa wax nga ne. boo tooñee nit bu la ñaanalee rek yàlla da koy nangu. mais est ce que tamit même bu la nit tooñee est ce que war nga koo ñaanal lu bon. parce que boo ñaanee dafay dal. waaw boo ñaanee dafay dal ah? Mm-hmm. donc euh, mm-hmm. ak loo mer mer tamit est que war nga war nga ñaanal kooku lu nga xam ni vraiment dafay doon safaan si moom est que jullit war na def mm-hmm. loolu jërëjëf waaw macha allah soxna si moo ne wax naa ko sànq ci biir wax ji damay wax rek dama doon leeral rek ñaanu ku ñu tooñ ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko jàngale ni daawatul mazlum euh, daawatul mazlum euh, mustajabatun moo tax ma koy leeral واحنا لا سانك النساء عليه وسلم واحنا لني آه، واحنا تبين حديث سل من قطعك واحسن الى من اساء اليك نينا ديل جوك كولا دوك تاي رافتال كي نياوي جيمي تي كون كي لا تون نياوال نا جيمي تي ياو واي ياو دغ دغ اب جولي بير لي گن موي آه، لي باب سنجوي سي عبد العزيز دون واخ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 ak say du yem ak say ah mooy nit bu la tooñee def na la lu ñaaw waaye li nga koy fayee mooy jéggal ko yàlla nee na wala tastawi du yemu alxasanatu lu rafet wala say ah du du ak lu lu lu ñaaw kon nit ki nga xam daf la tooñ xam nga ni tooñ na la waaye baal ko donte ne ku ñu tooñ sañ nga fay loolu la yàlla wax waaye yàlla nee na boo boo baalee mu gën te ab jullit war na góorgóorlu ba àgg ci martabatul ihsaan fexe ba <clears throat> buñ la tooñee ku la tooñ bul tooñ damay faral di wax ni jullit piir mooy koo xam ne du tooñ te ku la tooñ nga jéggal ko looloy jullit piir kon li gën ci ab jullit <clears throat> mooy ku la tooñ jéggal ko rek ngir jëm yàlla xam ni matadi gi ko yàlla bindee ci la la tooñee yow nag santal yàlla bi yàlla defee ci yow mat nga mën a am ak mat goo xam ni da li koy ñaanal sax mooy yow yàlla jéggal ko man jéggal naa ko ci xol bu sedd gudd te ku bëgg ñu lay jéggal nag del jéggale dëgg la damay nettali damay faral di nettali benn xissa mag ñi da ñoo ko daan nettali dafa am benn benn <coughs> ndongo daara boo xam dafa nekkoon ci sëriñam mais xam naa yàlla defal na ko kashfu ba mu xam ba bis lay génn àdduna mu ni benn xaritum ndongo daaraam man kat damay génn àdduna waaye bu ma génne àdduna sama sëriñ bi baax na lool mën na alquran day def lu baax waaye nag bu mu jullee wax ko li tax mu ni sëriñam bu ko jullee <clears throat> ba ñu demee ba sangu ko euh, sangu ko teg ko ci julleekaay bi sëriñam bëgg a ñëw jullee ko <clears throat> taalibe bi mu dénkoon ne ko ah sëriñ ah, mbokk mi de waxoon na ni bu génnee àdduna yaay sëriñam la yaay léppam yaa ko defal lépp waaye nag bu ko bu ko bu sëriñ ba it di ko woyof jàppewu ko dara bàyyi ba dëj ko ba pare mu woolu ndongoli ni ko mais yow euh, léegi lu tax nga waxoon ma ni ma moom dafa waxoon ni bu ma ko jullee mu ni ko waw nee na kenn dàqulaa julli kenn dàqulaa woor kenn dàqulaa def lu baal waaye dafa seetlu ci yow lenn mooy yow ku la tooñ doo ko jéggal ku la tooñ doo ko jéggal te moom comme que njéggalu yàlla lay bëgg dafa bëgg kuy koo xam ni ku ko tooñ mu jéggal ko mu jéggalul ko boroomam mm-hmm. kon liñ koy liñ koy mooy ku bëgguñu lay jéggal da ngay jéggal kon du dañ lay tooñ rek nga réagir waaye nit ki bu la tooñee jéggal ko ndax boo ko jéggalee yàlla daf la ci fayaat ay yiw yu baree baree bari macha allah te nit bu la yàggee tooñ sax mu yëg ni fu mu la tooñee nga jéggal ko bu yàggee rek mu ñëw xool xoolal li ma wax sànq ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xoolal bi sallallahu alayhi wa na koo xam ni ay mbubu mbalit la daan buub ci këram sotti ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seetlu ni kii kat sotteetul mbalit ci këram yonent bi laajte ko ñu ni dafa feebar yonent bi ñëw di ko seet si di ko seet si di ko kat dama laa gëj gis moo tax ma ñëw di la seet si dafa feebar xoola ci loolu ci njëkk boobu yonent bi la def ci la sukkandiku ni ko ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah moo tax bari na ku dugg ci lislaam bi mhm. euh, na am jikko bu rafet moo tax li li wax xaw ma am na soxna su ko sànq ni ab tiijaan du yére bu rafet daxañ mhm. maari ko wax si xaj Maalik nee na tijaan du kurus wala yëre bu rafet sa laysa tazayun min subhatin yu'tabar bal ittibaa mashayixu axbaru nee na tijaan mooy li la sëriñ digal nga nekk ci mhm. xamoon ne tijaan du am jot xoolal suba bu fekkee da ngay xëy nekk ci sa wirdu laazim nekk ci sa wazifa boo paree dem sa liggéeyukaay boo wàccee yaa ngi war a laazim war a wazifa boo paree da ngay sonn tëdd ngay mhm. moo tax ab tijaan du am jot bay tooñ tabaarakallaahu waaye ab tijaan it ku ko tooñ na ko jéggal dama koy faral di wax suñu jamonoy gàmm yi man leen gisoo léegi-léegi nga dem ci buskilaat boo xam ni lu mel ni Tiwaawoon wala fu ñuy gàmmoo léegi-léegi nit juum sax dëgg la xoola bala mu laa naan baal ma sax nee ko nee baal ma yow yow mi mu dëgg wàcce ko yëf yi moo tax ab jullit euh, du tooñ waaye ku ko tooñ ko koy jéggal tabarakallahu rek laa ci Xadi तफमलनी अपना मोमबडो हम ना न्यू जल्ला सु क्वेश्चन बोबरेक आप रे न्यू डाल दी इंशाल्लाह bismillah waaw asalaamaaleykum maa ngi jégalu de eh, maa ngi doon déglu rek waxtaan bi am solo wallaay ba bëgg woon dagg wax ji mais dama bëggoon oustaz tëje fenn rek laal fenn entre nit def la nga ko bàyyi naa ak yàlla comme noonu ñuy def wala ak ak ak ak baal nit lan mooy eh, est ce que am na différence bu fekkee am na différence pour Issa su leeraloo rek pour ñuy wax bàyyi naa la yàlla ñu xam ni luñ lan lañ ci yéene ak nga xam ne vraiment ni dala tooñ ba ba yéeg la nga ni que baal naa la ak ci xol bu sedd bi jàppaloo ko benn mètre comme ni ko maam Abdou daan defee ab Issa laalal foofu tuuti rek salaamaaleykum waxtaan bi am na solo temps bee jeex rek mais kon ñu gën a ñu gën a doole. jërëjëf macha allah waaleykum salaam sang bi jërëjëf. xam nga euh, ku ñu tooñ sañ nga fayu. Mm-hmm. ba ci tey. nit bu la jamee dañ buñ koy xisaas dañuy seet seet jam-jam bu toll ni bi la jam nga fayu waaye toujours yàlla dalay wax ni wa man afa wa aslaha fa ajruhu ala allahi képp koo xam ne dafa ba pare yéwénal yoolam yàlla koy fay yool kon li gën mooy ki ki la tooñ nga jéggal ko moo gën mhm. nit ki sañ na laa tooñ bu metti nga ni ko bàyyi naa la ak yàlla gisoo ab jullit nag ku ni ko bàyyi naa la yàlla war na tiit mhm. bàyyi naa yàlla wax bu gàtt la waaye ëmb na lu ne ëmb na lu ne kon nit ku la wax koo tooñ mun la bàyyi naa la dawal dem ci moom jéggalu ko ndax bu la ko jéggalul ah, lu xaw a doy war waaw doy na waar waaye nag li ma wax léegi ab jullit nag dafay jégale di jëlale mhm. waaw wax naa la ko ci taif wax naa la ko ci fatxu makka waaw wax naa la ko ci makka yonent bi ñi mu daan dundee Seex Haj Malik nee na am na ñoo xam ne xayriyaam ñoo tax ñu dugg ci lislaam bi waaw yonent bi lu ne def nañ ko ko embargo nañ ko lu ne ñu def ko ko waaye ba mu jekkoo dafa baale waaw kon li ma wax léegi ku bëgg ñu lay jéggal da ngay comme ab julit bu la tooñee jàppal ni moom moo matul loolu moom laa wax léegi moom moo matul moo matadi waaye yow mi mat ndax da ngay sant yàlla yàlla def na ci yow mat ba doo tooñ yow mi mat nag ki la tooñ ne ko jéggal naa la bu fekkee mën nga ko laaye biir nag waaw bu fekkee ndax léegi-léegi nit dina tooñ te am na lu mu lu mu comprendrewul ci yow waaw dafa am benn waay mm-hmm. euh, benn waay ñu baal ma waxtu waa ngi jeex sax dafa nekk ci jataay nuyu benn mbokk jullitam nee na ba ko nuyoo nee na mbokkam mi ni ko bul ma nuy yow am naa feq nga xam nga naa feq kuñ ko wax moo raw sax ab saaga mhm. nee na man i tekk rek te mënoon naa ko faj waaye man i tekk rek bàyyi ko du tee nag fu ma dajeeg moom rek fu ma dajeeg moom rek jox ko loxo nuyu ko mais bu may fay sax dafay may fay fay bu sévère nee na may dox may def loolu may def loolu ba bis moo ñëw ba ci man jox ma loxo ni ma bal ma àq léegi-léegi nit tooñ la wax la wax bu safaanu fekk am na lu mu comprendre ci yow yow nag da ngay jàpp ne yow yaa mat waaw moo tax nit ki buy jëfe jëfe ci yow safaan yow delloo ko njekk waaw ab jullit noonu lay def waaye bàyyi naa la ak yàlla ah léegi léegi nag nit tooñ la tooñ boo xam ni dëgg dëgg nag surtout xas gor waaw xas gor ah léegi léegi nit rek nit ku ne nit nga léegi léegi nit tooñ la tooñ boo xam ni amaan na bo waxale yàlla rek sa xol féexul pour nga bal ko waaw waaye nak ku bëgg ag ci yàlla faaw ngay nangu ñu lay togn waaw cheikh hadj Malik neena hamlu adal wara sunnatun lil albi lil anbiya iman waaw kun hamilan kull khairin sahibi tajid neena yannu ay lor ñu lay togn ngay muñ neena sunna la bo xamni yonent yep waaw yonent yep kël lañ ko daan def seen sunna la ñu leen di lor ñuy nangu nee na na nga na nga fexe ba yow jullit bi yow jaam bi ngay nangu ñu lay lor nga koy muñ nee na bu ko defee nga màgg nga màng yiwu baree baree bari moo tax am na ci cër yoo xam ne sax boo ko bëggee am faaw nga nangu ñu lay lor yow gis ngeen suñu ay sëriñ wax naa leen ko léegi ñu dalee ko ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ba ci Seydi Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ba ci Cheikh El Hadj Omar Foutiyou ba ci Cheikh Mouhamadul Ghali Chérif خلفاء الشيخ ييب با تي شيخ الحاج مفوتي رضي الله عنه با تي مام الفاهيم يورو ولي لون لا ندان دج با تي سيد الحاج مالك مام سيغ بابا كسي دغنا دا فا امون دوك بو خامني دا كو دان ديف صاح بور نيغا خامني دا ني واختي موم سفان باغا لورو خول لور ريك خول الحاج ماسور الحاج ماسور رضي الله عنه مبوكم مام الحاج كبي دي ويجور با مختار كبي لوم كو واي تاودال جلالتي صبرا قلبكم سليما يا معجب القوم سود والبياضيني waaw nee na ko doj nga ci mën a muñ alaaj Mansour lu ne la daan dégg mais dafa daan muñ taw dal jalalati sabran nee na qalbukum sa xol yow alaaj Mansour salima dafa muc waaw dafa mucc yaa mujibal qawmi yow mi yée yéem nitu yàlla yi waaw suudin moo xam ku ñuul la wal bayaadin moo xam ku weex la kon suñ ay kilifa nañ leen roy roy nit ka nga sob danga koy roy tabarakallahu ko bu ko defee loolu rek laa ci dolli macha allah عبد الرحيم macha allah oustaz dafa mel ni waxtu wi xaw nañoo tënk ah daa mel ni am na ku wax foofu de xanaa ñu ñu ko baale rek ñu may ko mu daal di xam naa def contribution après ñu daal di tàggatoo waxtaan wi am solo bismillah alors salaamaaleykum waaleykum salaam waaleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu di leen ziar delloo ziar mm-hmm. macha allah jéggalu bu baax xam naa du yàgg comme ñi waxtu wi dam mm-hmm. nañu mm-hmm. dama eh, New Jersey Serigne Mamadou Gueye daayira New Jersey sang bii laa bëggoon nuyu rek waaw maa ngi ziar Gueye Abdou Aziz maa ngi lay ziar bu baax a baax maa ngi lay maa ngi kontaan lool macha allah maa ngi delloo ziar waaw léegi seen la ci it faay ma ne xaaral ma daw dugg nuyu la waaw kontaan na kontaan na macha allah loolu ci gis la ci waxtaan wa dëgg yàlla wallaay jërëjëf jërëjëf. Guèye Guèye Guèye wallaay jërëjëf jërëjëf ñaanal yàlla di kontaan di seede bu baax sa taxawaay. wallaay jërëjëf Guèye jërëjëf la jógee xadara ma la seenee rek man naa dugg nuyu la ziar. macha allah kontaan naa macha allah ci yëngatu yi. jeex na yàlla nga nekkee woon fii. kon boo ci nekkaatee laa xar <laughs> macha allah sa papa bërki démb rek foog naa ñoo ñoo nekkandoo. dëgg la dëgg la Diop. ak imam imam Ousmane macha allah. yow jotal ñu nuyoo ñoom ñëpp ñu ngi leen ziar baax a baax. dinañ ko dégg dinañ ko dégg dina ko wax dina Ousmane. xam naa comme temps kontaan nañ bu baax ma kontaan nañ bu baax a baax macha allah. jërëjëf jef jërëjëf jërëjëf jërëjëf Guèye barakallah. mbokk mu baax la macha allah. macha allah alhamdulilah ñoom daayira passé bi Abdou bi nekk fii ci Pikine. di eh, eh, Shababul Muqtafin bu mu jumul. Ah, ah. eh, ci la nekk ñu am ci mm-hmm. yëngatu bu am solo. Masya allah Masya allah ñu Masya Allah. suñu benn Masya daara imam Osman Diop mu am ci Masya lool Masya allah papa Masya Allah. juram Allah. Masya Allah. bi ah Masya la Masya allah Masya allah Masya Allah. bu ci Masya Allah. wa Allah. Masya Allah. taxawu Allah. taxawu ko bu baax Masya Allah. Masya sallallahu alayhi wasallam amin amin Masya allah ah abdourahim ah ñi ngi jégalu bu baax nag déet man kay <laughs> dañ ma dañ ma commencé di tënk sax waaye daanaka nit ñi ñi ngi bëgg di <laughs> waaw bismillah xanaa boo ñu ko boo ko nangulee rek ñun moom waaw incha allah xam naa am na ku soxna Fat Si waaw oh, dama hmm. defe ni Adja Awa sax asalaamaaleykum ah. wa rahmatullah waaleykum salaam waaleykum salaam nuyu naa leen yéen kenn ku nekk ci turam ci santam di jiital eh, nuyoo bi suñu eh, sëriñ sëriñ Sidi Ahmed Mm. Um, sëñ bi dama amoon euh, laaj bi ma bëggoon laaj ci soxla si euh, Fatou Keita suma juumulee mi doon wax lax bari bi ci Google mm. pardon su mm. fekkee mën na partager link bi rek pour ñu mën ko download yaa waxtaan bi tamit vraiment macha allah am na solo loolu vraiment dëgg fa yàlla tey tamit gën nañoo xam lu ñu xamul woon <laughs> yal nañu yàlla may dégg allah may ñu nopp sax ñu dégg ko may ñu tamit niñ ko toppee ci allah vraiment kontaan nañ ci bu baax baax amin amin amin jërëjëf merci macha allah barak waaw aja aja awa waaw waaw waaw salaamaaleykum wa rahmatullah salaam wa rahmatullah maa ngi nuyo di ci jiital euh, Serigne Sidi Ahmed ak soxnaam soxna ma jigéen Abdou Aziz man la sa sœur Adja Awa Ndiaye sa doom eh, sa Adja Awa Ndiaye joojo <laughs> waaw macha allah maa ngi ziar di kontaan yal na yal nang bi kontaan naa trop eh, waxtaan bi macha allah temps bi nag moo ñu moo ñu moo ma amoon i hmm. gan ñuy doog a dem léegi looloo taxoon dugg ma wax nga dëgg wax nga dëgg waaw xalaat di nuyoo Adja ñu na yal kontaan nañ trop jërëjëf ñoo gën bëgg ci taxawaay yi foofu macha allah jërëjëf soxna Adja Ndiaye jërëjëf jërëjëf jërëjëf macha allah ya. macha allah soxna Adja Ndiaye ya? macha allah moom yaayam suñu daara ji ñu yor di les sœurs les sœurs musulmanes wala mhm. axawaatul muslimat yaayam mooy présidente bi yaayam allah suñu yaay ju baax ya. allah mhm. tabarakallah sénégalais yi allah lañ alhamdulilah bu ñu demee foofu daal foog naan dañuy gën a dund seen diine. alhamdulilah sant yàlla bu baax allah yal na yàlla fay moom ku baax la tabarakallah soxna Aja. jërëjëf soxna Awa ah, comme niñ ko doon waxee rek xam naa ni jamono ji moom <laughs> waa ci mm-hmm. mooy xoj sax waaye xam naa ñu jox la mm-hmm. kàddu rek nga daal di tàggatoo ak mbokk yi incha allah mm-hmm. bu defee ñu jise waat gisewaat ci yeneen jotaay incha allah. incha allah incha allah. waaw sëñ Abdourahim jërëjëf ñu ngi leen sant ci occasion bi ngeen ñu may macha allah ñu mën a waxtaan ak jaami yàlla jiital ci suñu bopp nag eh, waaye di leen ñaanal yàlla di teg ñaan gi ci loxo sëñ Sidi Ahmed si ndax bu ko neexoon lii muy daj ci coono du ko daj waaye nag xam ni mooy lii mooy mission maamam li ma wax sànq sëñ El Hadj lim fi bàyyi mooy daara ak i waaw xanaa bu amee bu ko ñetteel mooy bind bàyyi fi te loolu dara taxul lu dul ñu xam naka lañuy ñuy jaamoo suñu borom naka lañuy ñuy royee yonente bi sallallahu alayhi wasallam daka la ñuy soppee yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo tax ba muy bind xilaasam bay waaje daaneel يعني أعددت hubba rasulillahi mahsharati li kay yulaqiyani fi awwali ظلمي kama وهبت lana tartiba siratihi yow yàlla maa ngi lay ñaan li ma xaroo ëllëg mooy sopp yonente bi sallallahu alayhi wasallam bu muy dugg ci bàmmeel yàlla ni ma taftalee sa siira bi maa ngi lay ñaan nga may ma ma mën a roy yonent bi sallallahu alayhi kon li mu bind bàyyi fi loolu rek la ci bëgg ñu ñu soppee yàlla ñu ñuy góorgóorloo suñu digganteeg suñu borom macha allah bàyyi fi ay jàkk bàyyi fi ay daara tabarakallah kon yàlla ñu ko yàlla fayal yow it ngay sëtam ndax dañ naan sëñ Sidi Ahmed maam Habib tabarakallahu sëñ El Hadji Malick kon ko defee yàlla na yàlla taxaw la bu baax si ñu lay ziar di ziar suñu sëriñ sarak sëñ Moulay si Mouhamadul Habib moom it taxawaay bu bu ni mel la am fii macha allah xeebul daray njaboot gi ku mën a xewle jug na bàyyi ay yitteem fekk ko macha allah kon yal na yàlla dëgëral leen ak njabootu Seydil Hadji Malick gi yëpp di leen ñaaxit ci jumaay sëñ Seydil Hadji Malick gi te mu nekk ci loxo sëñ Babacar Sy Mansour ah piñ si yeeg mën orange mën a yeeg seen wéef yeeg waaw lu waaye mën a dugal rek boole ko nag zawiya Seydil Hadji Malick boobu sëñ Sidi Ahmed di taxawal foofu dëgg dëgg nag eh, lim ci bëgg yal yàlla defal ko lu yéen a ngi koy taxaw yéen yéen a ngi koy secondé ndax yonent bi sax amoon na ay saxaaba waaw kon yéen yéen ay ay saxaabaam kon yal na yàlla taxaw leen ñu ngi leen di gërëm di gërëm waa ITFA ñoom sëñ Pape Mbaye sa sëñ Mor eh, eh, mbaw foog naa ak mboolem ñi ngeen ko seqal rek sëñ abdourahim yow jërëjëf macha allah yal na yàlla taxaw leen ci biir ak ci biti amiin yal na yàlla dolli ci seen ay xarakat barke daraja yonte bi sallallahu alayhi wa sallam in uridu illa al islaha ma stataatu وما توفيقي الا بالله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وعليكم السلام sëriñ bi baal leen xale bu jigéen soxna si laajte loolu bu ma ko downloadee mm-hmm. dama koy jaarale ci loxo Serigne Ahmed si. Mm-hmm. mu partage ko groupe gi. incha allah jërë salaam wa rahmatullah ah, kon nag ah, oustaz ñun ñoo yora cant ak ngërëm boo xam ne dañ la ko war a wax dëgg yàlla ah, tey moom daanaka duy nañ ci suñu àlliway ba mu baax a baax a baax lii moom buñ ci jàppee dinañ yor ji koy sànq ñu ngi lay dolli di la gërëm di la sant ci turu Serigne Sidi Ahmed di la mm-hmm. ñaanal borom hmm. deugural ak guddal fan lepp li nga xamni songo ko ko yalla nañu yalla na la ci suñu borom defal ndam kon rek xamna ñu baña guddal eh, mbokk yi len di di len di jox dig inshallah ci benen ajuma ci suñu programme hadratul juma wasalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh inshallah وعليكم mhm. السلام mhm. jërë ngeen jëf ci taamu ak tànn bi ngeen tànn rajo itfa rajo itfa ànd ak yéen ci programme yees yu am solo moo xam ci wàllu diine la moo xam ci wàllu actualité la ak lépp luy soxal dund doomu aadama rajo itfa ànd ak yéen lépp luy askanu gambia wala mu soxal askanu sénégal te nekk ci biir amérique ak li ko wër di ngeen ànd ak rajo itfa ci programme yu am solo rajo itfa di rajo askan wi leeram ya jolli na foo xool fa baawaan rajo itfa daal dama ni jàppal ma bii rajo bul ko bàyyeeti ba mukk rajo itfa rajo askan wi غضت عيناي ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي صل على محمد الله يا رسول الله